li tax ma génn tey tey parce que tu as fait quelque chose de très grave tu es allé au-delà de ce qui est permis bañ naa ko ba kenn parce que il faut ma toog wax Sénégal yaay kan ak li nga may def te wax bi jeex coow li jeex Françoise Gabriel waaw yow nekkatoo ci combat bi waaw Gabriel moo tëye combat bi coow loolu yëpp laa bëgg mu jeex tey parce que yow yaa koy alimenté yaa koy alimenté et tu ne le même pas pour l'intérêt de la nation tu ne le même pas pour l'intérêt de Adji mais tu le fais juste pour toi pour ton marketing personnel ñun dañoo yàgg fii laajal Dame Dieng laajal waa Sénégal laajal Sénéweb say xarit ak ñëpp waa ñëpp ñi nga ñi nga woor ñi nga jënd tey xaw ma da leen jënd xaw nu mu demee waaye yaa xam mais tout le monde tire dans ñu bëri dañuy orienté wu yow ci ni ngay orienté demaa bi alors que tout est faux tout gëmoo la cause des femmes gëmoo ko gëmoo jigéen en tout cas xaw ma ban jigéen mais Adji Sarr li nga koy def li Kaliphone wax yépp dëgg la dama la daan sutural noppi parce que xaw ma sax fu ma koy waxee ndax rus naa wax la ngay def Adji Sarr rus naa ko wax nit mu tax ma mel ngay wër di wan nit ñi que yow dañoo xuloo xuloo wuñu dama xam li ngay def Adji ci suuf te boo génnee def semblant que yaa ngi koy défendre ana féministe ak di téye nit ci këram di ko xiifal doo ko jox mu lekk doo ko jox mu lekk doo ko jox dara te foo dem taxaw ne kenn dimbaliwu ma l'état ne m'aide pas man maa ngi nii yow ba ma waxeek yow ba nga ma woowee yow yaa ma woo mës defe naa ni ba ma la gisee ngay défendre aji Sarr presque un an après ba ñu commencé combat bi du dangaa dangaa ne yow seen yow dangaa demoon Europe ñun bandi Sénégal ban Sénégal la ñu jàngee ñun yow bu France nga mën ñun bu Sénégal la ñu mën du dangaa bandi bay enregistré Californie Californie ñëw di la apporter soo soutien ci xeex Françoise Hélène ba wax la lu la neex wax la loo xam ne leen na ko amul lii yoonu Sonko nekku ci ndax nitu Sonko bés bu ñu lekkante lii yoonu Sonko nekku ci ak amu de lii damaa bëgg liggéey bi jaar fii def ak defal ko parce que Gabriel est en train de foutre ce combat en l'air Gabriel dafa nekk di foutre tout ce qu'on a fait en l'air il est temps que ñooñu autorité yooyu mu yaakaar ba di ma woo ci suuf di ma saaga te loolu c'est un délit tu m'as insulté Tu es venu me traiter de menteuse alors que j'avais dit la vérité. La ministre, la, la, la ministre, ancienne ministre des femmes, l'a confirmé. Je me suis dit, tu es une menteuse, tu es une menteuse. waaye tapette nga. L'outan nga bloqué ma. Man, douma Californe de. Californe, président de la République, yow sa bopp ngay xeexal. Californe ma ko wax dara maa ko baal. Woo na ma xam nga dafa la wax ni dafa effacé sama numéro. man de man damaa jékki-jékki gis Kaliphone woo ma mais loolu mu doon wax yëpp je le comprends dafa bëggoon lu la neex yow la doon wax yow la bëggoon lu la neex di la soutenir Kaliphone di la soutenir pour dire quel genre de personne tu nit kii nga xam ni dafa jóge kër ba kër jóge bàyyi waa këram bàyyi jabaram bàyyi doomam ñëw toog sa bureau di la soutenir ndax li la Sénégal yépp doon doon ŋaññ Sénégal yépp di la wax lu métti Californie ñëw di la soutenir nga am outrecuidance enregistré ko du audio la yónni de dafa toog di wax ak yow nga enregistré ko pour dire qui tu nga enregistré ko jël li mu wax ci man lu bon parce que xam naa ni enregistré nga lu bari li mu wax ci man nga ciblé man nga ciblé nga ciblé moo tax tu as ta réponse aujourd'hui xam nga démb tontu pour Kaliphone ne Kaliphone maa la jéggal tontu pour Adji Sarr ne maa la jéggal mais yow jéggaluma la parce que temps vas la cruche à l'eau qu'elle se casse tu danga fa ma wan la ni rek man dama am làmmiñ am comme yow ëpp la fit téeméeri yoon maa la ëpp fit la ma sañ-sañoo ko c'est que man lépp ci luy jub ci jub rek lay dox ma dem ba nga defee ni dama ragal wala dafa am lu may tiit wala dangaa am borom doole yu la jàppale ba tax ba yow koo romb rek mën nga ne kii il faut ma del ma détruire ko yaag maître El Hadj Diouf yaag ministre de la femme bés bu ne am na koo joteel démb yaag Kaliphone man li may wax ni yoonu waa kër Sonko amul lu ci nit nit kii lii nit ak nit la te moom jàppalewul sax président Macky Sall donc Kaliphone moo tax moom moom jàppalewul président Macky Sall moom élément amphibie la rek day tendre sax la mais des fois day def ay comme ça s'appelle des appels du pied au camp de de de de de Ousmane Sonko appel du pied yu leer muy fii dans la presse suñu yoon nekku ci Sonko waxuñu waxu Sonko waa Kër Sonko bés bu ne ñu ñëppante ndey kattante ndey fii ci réseaux sociaux yi gis nañ fi euh, Ousmane Tounkara ak malade mental bi nekk Paris ñoom seen biir bés bu ne ñu ñu lekkante te woowuñ waxuñu ni eh ak Macky Sall lañ dal déedéet man ak su Ousmane Sonko mënuma dal parce que defuma Ousmane Sonko boo gisee may muñ dafa amoon lu tax mais comme da nga pousser l'outrecuidance man c'est le message subliminal que je traite l'objectif de ton action indigne envers Californie malhonnête envers Californie parce que ci la de toute façon ci malhonnêteté nga dëkkee ak man di yóbbu dans la presse lu la arrangé nga Californie ñëw di la défendre nga jël Californie muy wax nga enregistré ko enregistré Kaliphone ba pare dagg fa nga xam ni fa la Kaliphone di yàkkee Françoise Hélène Gaye nga dem séddale ko say journaliste les journalistes à ta journaliste yi nekk à ta solde nañu ñëw jël lii c'est moo droit de réponse parce que nee naa la c'est le message la communication dafa subtile mënoo ma réeral ci communication su ma la jàngaloon te dangaa jàng war na nit ñi ban diplôme nga am bu dee bac plus de mooy ni jàng goo parce que BTS c'est l'équivalent d'un bac plus 2 les gens ont des DEA ñi ngay xeeb ba di leen yàpp man li nga ma def yëpp su ma ko waxee nit ñi ah, àddina si ni la ñuy ne xalaat xalaatuñu Françoise mën na muñ ojo boobu ngay mentionné moo gën a tax ma génn te yow yaa tax audio boobu existé yow Gabriel yaa jël Adji Sarr ba nga yegsee nga jël Adji def ko otage parce que yow dangaa séquestrer Adji Sarr li nit ñi xamul li Kaliphone di wax dëgg la nga yaa koy wax kan lay seet kan lay waxal def nga tout ko mu bañ a waxateeg man man lu may wàññi def nga tout pour que bañ a mës a gisanteeg man ba ci manœuvre yooyu nga xam ne information ya ñu jox ya ñuy joxe à l'époque te nga nga indi la perte de Mollah gën ma dem gisante ak Adji ndeke danga ko newoon bul jël benn photo ak Françoise Hélène Gaye àddina si dama bëgg ngeen déglu Gabrielle Kane dafa ne Adji bu ma photowoo ak Adji looloo tax ba ay seeni informateur Pastef dafa woon ne photowu ma ak Adji Sarr wala manœuvre def après pour que ma wax ni man tamit dem na ba ñu may pour man ma wax que man gisuma Adji Sarr pour faire l' affaire de Gabrielle Kane xaw ma kan la waxal ci waa état bi ba gëmloo leen ni kay laa l' exclusivité maanaam dañ koo signer l' exclusivité de Adji Sarr Gabrielle ne Adji bu Adji photo ak man xam ngeen doomu aadama bu leen xool li muy wax xool leen ay jëfam Gabrielle du danga doon danga doon làmbatu daj nga yàpp nga client boo dul wàccee man Françoise Hélène may client boo doo wàcc doo amul amul gaar boo may wàcce régler rek régler rek nga régler lem sa génn ba mu wuroo nga toog nekk nit ñu ànd ñun ñëpp liggéeyal Sénégal wala liggéeyal Adji Sarr waaye li ngay def man di ma di ma tooxal di jéem a tooxal Françoise biir Sénégal fu lay nga yóbbu fa sama tuub lu de nga wax ko ci sama der bi te dëggamu Adji Sarr musuma ko lekk. ak bu yàlla dinaa wax lépp mu lekk te nit ñi xam yaay kan. yow ana man damay défendre jigéen ba di ko dóor bay toog ci kawam nga ni yaa ko wax Bougane Gueye Dany est témoin yow Bougane dafa newoon daf ma soxla ma ñu dugg di wax ba yegg surtout ma ne ko dugalal ma ko ci appel bi ma présenté la euh, Bougane maa tax nga dem seen TV ndax man maa tax nga wax ak Bougane nga fekk ñuy waxtaan ak buugaan salaamaaleykum way nga commencé waaw maa ngi nii man maa koy dundal maa koy jox état dimbaliwu man maa ngi nii sama sëy tas na ci tëgg ni ma ne ko kañ nga sëy waaw sama copain dañoo demoon bay waaj a sëy ma ne ko kon kooku bugg la waaw waaw maa en fekk deux cent mille francs par semaine ma jox ko carte bleue da koy xoos di jënd ay di jënd yàpp di jënd ay méchoui ay cousin yu jógee université ñëw ay xawma lan ñëw kañ la ma ne ko kañ la Adji Sarr amay cousin yu nekk université waaw man ne looloo ma jaaxal wax wax wax wax ba buugaan la taxoon buugaan ngay deni woo ma mënutuñu ko wax ba tey jii yeggaliwu ma séance de travail boobu ma waroon def ak buugaan ma ma ndax yi sama xol bu yaatu ba mu waxee mbiru communication ma ne ko dugalal Gabriel ba mu waxee tuur Gabriel ndax xam nga ma ne ko dugal leen ko ma joxe ñu ne ñu dugal la ci appel bi ba nga ñëwee la waxtaan bi jeex ca la waxtaan ba jeex ndax il s'agit c'est que de toi je moi je je ba faf buugaan ne euh, mujjee choqué ba buugaan génn àddina aji saar yëpp nga nettali ko ko en cinq sa àddina yëpp nga nettali ko ko en cinq minutes man dama rus ba ba tey ba sànq boo laajee keneen ki nekk ci appel bi dama pare dama ko doon jéggul j'ai essayé même de te contrôler dans l'appel te pourtant xam nga loolu que je te voulais du bien mais arrangé wu la woon nga nekk ak wane ni yaa ngi ak jàmm ak Françoise parce que tu veux l'exclusivité de ton de sa butigu mbagg bi Adji Sarr buti gu mbagg la tu voulais l'exclusivité comme na nga def j'ai compris que na def ak buugaan ak euh, associé buugaan boobu yow noonu yoonu buugaan nekku ci man maa tooñ buugaan parce que ma euh, dama doon waxtaan ak moom simplement moom may wax waxu euh, liggéey ci réseaux sociaux yi Maguita nga ni kii Magita la wala c'est pas Magita xaaral dugal la bu fekkee ne sa opinion la bu dee Magita bu dee sa dugg wax léegi nii yow Magita bu dee yow la <laughs> xaaral ma dugal la bu dee Magita man nga waxal. yow Omar Ndiaye du moom mooy génne say bagage parce que say bagage yëpp Omar yónnee mu gis ñu nekk man Magita damaa bëgg bu dee yow la nga jël téléphone bi nga dugg léegi nga dëggal sa bopp parce que dama leen di wax ne y a deux la maman Françoise ak Jinne Françoise ñaari tuur la Françoise la ak Hélène Françoise mooy ku baax ki Hélène mooy ki nga xam ni kenn du ko jam naa ne Hélène moo toog tey Magita bu dee yow la te nga sant Njaay gaynde Njaay dëggalal sa bopp nga dëggal sa bopp léegi léegi léegi carte gi gën a leer gis nga association neenal Françoise Hélène Gaye dama leen di wax ni Françoise Hélène Gaye ndayam dafa liggéey ndeyam du ko juum mu set wecc yàlla may ko xol bu set wecc du def doomu aadama du ma def nit lu mais boo ma defee may muñ may muñ boo muusee da ngay daw da ngay bàyyi Gabrielle Kane jour boobu danga maa ruslo ba ñemetuma wax ak bu wax wax ak buugaan bi fa parce que dama bu buugaan jour boobu tu lui as donné des informations sur tout et rien sur vie privée yow sur ñun jour boobu xam naa lépp sa dund yow ba noppi xam lépp ci dund Adji Sarr la nga dund ak Adji Sarr ak ay ñoom Ablaye Der ak ay ñoom képp koo xam ne jege na la jour boobu wax nañu non Maguita dafa ma gis mu bind day duul day duul bab sa diaspora témoin la li may wax ni lu may wax mën naa ko wat yoonu buugaan nekku ci buugaan dafa ma doon laaj bëgguma ku may bindal non non non de dem leen dugal naa ko parce que dama bëgg mu bind dama fa fa bind day duul ma ni ko kan mooy duul na ma leeral man Mamou Diallo musuma jox un franc yow sëñ boobu di wax su ma ko bu dee Mamou Diallo mus na ma jox un yàlla nañ ma suul tey tey jii yàlla naa dee tey Mamou Diallo na ma wax balaa ñuy wax waxu kër sax bu dee mës na ma jox njëgu lii xam nga lii lii njëgu papier bii bu dee Mamour Diallo mës na ma ko jox yàlla naa dee tey nañ ma suul tey kenn sànkuwu fi lii Gabriel Kane moo tax mu am te dama bëgg mu leer ndax dafa xam naa ni am nañu koy jàppale association Mati Trois Pommes Gabriel Kane Californie moo tas démb xaw ma ndax tas nam tasu waaye Kaliphone ñëw na baalu ma ak Mati Trois Pommes àddina seede na la ma sonn ci moom la ma daj ci Mati Trois Pommes dinaa leen woon li ma mujjee waxanteeg Mati Trois Pommes ndax am na lu ci nekk bu lu jag nit mere nit bu fekku woon ni nga am envie nga nekk entre deux chaises nga tànn ba nga xam ne moom nga yaakaar ni moo lay ubbil buntu relation waa waa gouvernement bi man oh, aw <laughs> ma leer na ne xaw ma kenn ci gouvernement bi xaaral kii ma bloqué ndayam parce que tout boobu moom di ko gis ko gis satan moo may laa yemale Binta Sane ma bloqué sa nday nga dem waxe ko ko fële mati trois pommes bàyyi leen ma dama bëgg mu leer parce que dafa am ku fi ko fi évo lu ko évoqué loolu jotewu ni jotewul woon ak Kaliphone Magita kon maa ngi lay maa ngi ñu leeral Magita dama foogoon ni man daf ma ne day duul man il faut que je sois concentrée parce que je veux que su ma paree ci lii xoolal ñooy association nañu ànd sen association te ba ma Kaliphone samay élément ñoo ma topp ne ma naa ko ma waxtaan ak kilifa bu jigéen bu APR bu ko jege bu jege xeex bi mu ne ma baal pour ñu ànd liggéey bugaan xamul aji saar musul gisanteeg aji saar xamul dara dara dara ci afewu wu aji saar te pourtant yàq ngeen daram foofu yéen waa kër Ousmane Sonko moo tax nee naa leen ci àq ngeen dëkk moo tax Ousmane Sonko munul dem parce que ci àq ngeen dëgg man ni seen waa ji nekk fii Ousmane du ma wax sa bàyyi sikkim xam nga dafa dafa raté àddinaam Ousmane Tounkara xam nga dafa raté sa vie moom defe na ni ba moom dafa foogoon ni man li may toog man gis nga pare naa ni damay liggéey mais tey damay génn damay liggéey mais gis nga su ma toogee nii da ngay foog ni man loolu lii rek laay def su ma su ma paree ci li pare naa ci maa ngi liggéey sama bopp lay liggéeyal mais comme moom dafa foowe boppam ba toog amul kër Sénégal amul kër Amérique mu jékki-jékki gis sama kër Sénégal mooy comme gis nga mooy la fable boobu nga xam ne tortue ak lëg dañu doon course lëg daal di taxawaalu di lekk ay ñax di foo di tëb di dal mbonaat di dox ndànk-ndànk di tàmp jubal ci yoonam rek la jékki-jékki gis moonaat ligne d'arrivée daal di ne fou fu mu jàll looloo dal Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara man damaa liggéey yàlla sama ndey liggéey ma ñëw am jëkkër ju am moyen jàppale ma sama kër googu maa ko commencé maa ngi ko jënd quatre sama premier salaire quatre-vingt-seize premier bañ ma rappelé laa jënd sama terrain ba ma ñëwee de euh, ba ma nekkee Italie laa ko commencé tabax Italie architecte bi ma collaborateur u kii la euh, Atepa cabinet Atepa la nekkoon dama ko fay quatre cent mille c' était en deux mille quatre xaw ma deux mille ay deux mille quatre deux mille cinq laa fay quatre cent mille pour le plan ba ma delloo Italie commencé di ko tabax bâtiment boobu war na waroon na pare depuis sama jëkkër ji moo ma jàppale ak liggéey yi may liggéey fii sama xaalis xam ne sama bopp si man la yem sama xaalis si man la yem dépensé wu fayu ma courant fayu ma ci ndox maye ak régler samay problème am di jàmm ak sama problème mu bopp kër ba muy pare fekk affaire aji Sarr amuwul sama kër Adji Sarr lan la fekkee affaire Adji Sarr pav kii façade devant bi te waa mun nañ leen ko wax façade bi kese ak pavé ya ma def ci buntu kër pour que foofu ndox du fata taa léegi nag ñu dellusiwaat donc c'était juste une parenthèse pour Ousmane te yow yow Ousmane Tounkara respectel sa jabar Ousmane Tounkara mën nga am soxna bés bu ne ngay wax weenu jabaru jàmbur taat yu taat yi pooj yu fees yi ah dënn bu fees bi yow Ousmane Tounkara doo xool sa dënn jabar te bàyyi dënn jabaru yi yow sa jabar moo ñàkk fayda man sama jëkkër bu bésoon toog bu toogoon ba commentaire dënn jabaru jàmbur ma def ko lu ñaaw ma def ko lu ñaw dootu ko defati waaye yow bës boo toogee di nga dama la obsédé sama yaram daf la obsédé waaye yow xam na ne yow doo ko ko musa teg sax loxo sama kaw gis nga ma du ma sama rob xanaa nga chauffeur rek nga ma nga mën a nekk sama chauffeur kese nga mën a nekk ok ok voilà donc loolu c'était juste une parenthèse ma dellusiwaat ci affaire ma dellusiwaat ci li tax ma toog parce que quand va la cruche à l'eau elle finit par se rompre te am nañu ay amis communs xam nañu ni muñal naa la yow Gabrielle Kane te may wax ne lii may wax ni tey yow la concerné Kaliphone moom baal naa ko parce que dañoo ànd di liggéey Gabriel yow nga jël sama audio boobu yóbbu ko pour yàq ni yàq ma pour wax ni ñi ne man yow maanaam la ngay def man man moom lay def Kaliphone naan la dama leen di tegal tontu Kaliphone nga jéggal ma parce que tontu bi rek dina leeral dina leeral bu baax ni ñi xam ni man kali kii sama benn élément Idrissa Ndiaye expliqué na Kaliphone lépp rappelé lépp. waaw ah, maa ngi lay ziar. ok. Kaliphone maa ngi jégalu nag len len ay parce que lii mooy dëgg bi. dama bëgg ngeen déglu bu baax. moom rek a taxaw yow taxaw ngeen yàq François Hélène lu mel ni xame ñuy geer ak yéen ku dégg bëccëg di saaganteeg yéen ku dégg bëccëg yow Khalifa tey ji bu amee fit ngir neexal Gabrielle Kane ba nga taxaw fi bëgg a yàq deru Hélène naan Hélène luñ ko jox loolu ay kàcc la Hélène lépp luñ ko def jox def na ko ci ñun Hélène lépp luñ ko lu ko waaye jox def na ko ci ñun amul leen lu mu lekk mu ngi toog nag jàpp ñàmburam te ba ba ba laax bi tàngee moom képp ci dugal loxo yow kari am nga foo jaar ak ñun yow kari bu fekkee ne ñun ñoo tax nga ñibbisiwaat ci président parce que ñun ñoo dagg sa vidéo bàyyi ba ngay ba nga jubóog ñu laa sa vidéo bu boobu dafaat bu mu ñëwee commencé wala songaat saaga la nga mujj ñëw ba nga ñëwee laajoo kenn ndimbal man kali man maa la doon woo téléphone ñuy waxtaan man mi maa war a jéggulu François Hélène Guèye ndax man maa bu mu nee lu dootuma ànd ak kali man maa ko topp di ko di noo garaawul xeex la rek dañuy xeex ak ñi te xam nga xel mi ñëwaat na ba mu ñëw dellu siwaat ci camp président Macky nga jàppale ko ñëwal rek nga jàppale ci ko baab di ko baab dugg sa live benn yoon kali euh, François kenn njëkk a supprimer moom moo lay xool gedd la supprimer sa numéro dootul waxanteeg yow li nga wax nag yëpp ay kàcc la Gabriel ka bu mu taxaw nga taxaw di di di yàq deru François Hélène li mu ci mel li mu ci def ay tantaam ki bàjjinam ñëpp xam nañu François Hélène Gueye daa xeex ngir Adji Sarr ngir Adji Sarr daa xeex ngir Adji Sarr voilà sama gars yi euh, xam nga lii sax vraiment ñàkk euh, ñàkk pexe yàlla xam na ne ñàkk pexe moo tax ma koy def parce que dama toog lu ma un an iPhone poussière Gabriel di def waxuma muy def waxuma mu dem ba mu mel ni la muy wax la nit ñi di gëm mu mel ni mooy jàll dama bàyyi aji xam nga xam ngeen ni que bàyyiwuma aji saag ba mu ba ma woon ne gis ngeen ñiy def yëfu mbaam yooyu dama leen di traité traitement mbam aji Sarr a ngoog vous avez coupé Adji Sarr de Kodas vous avez coupé aji Sarr de Françoise Hélène Gaye loolu Gabrielle Kane moo moomoon wax boobu parce que moo jëloon Adji Sarr barricade ko pour kenn bañ a jot ci ma bañ a jot ci moom kenn bañ a jot ci moom kon yow Gabrielle boo jëlee fuité audio boobu de manière pernicieuse daal di wax ak ah, gis nga de man ak lu ma mënti jotee ak Adji Sarr lu mënti jotee ak Adji sax du tax ma génn ci kaw wax Gabrielle man jotewuma ak Adji Sarr musuma jotee ak Adji man yow laa joteel ndax traitement maltraitement mauvais traitement yi ngay def Adji ma xam ko humiliation yi ngay teg Adji Sarr Adji Sarr n'est pas exemple de tout reproche c'est pas une sainte c'est-à-dire que du ni la xale âge am la rek day def ay erreur dëgër bopp wala et cetera mais c'est pas une raison pour l'humilier pour la maltraiter te boo génnee di wax leneen nee la wax bii du Kaliphone da nga génne woon audio bi pour ma dal ci kaw Kaliphone dangaa bëggoon man ma attaqué Kaliphone du ma attaqué Kaliphone yow laay attaqué yow laay tontu nag finalement parce que Kaliphone woo na ma wax ma ban contexte la Kaliphone daf la yërëm ñëw di la jàppale nga nga ko xooloon ni kii dafa ñëw di ma jàppale nga enregistré ko enregistré fu muy waxee lu bon ci moom nga dugal ko ci presse bi pour yàq ma man moo tax yow lay tontu Gabrielle Kane man Adji Sarr récupéré wu ma xaalis ci ministre boo xam ne daf ma ko jox ne ma demal parce que yaay jàppale Adji Sarr man nit joxuma xaalis mu jaar sama loxo lépp lu CODAS joxe musut a jaar sama loxo parce que dama jàng deme du passé xaalisu Adji Sarr dañu koy gérer directement ak Adji Sarr Adji Sarr teg ko ci loxom du laal loxo Françoise Hélène Gaye contrairement à toi lan moo tax nga ñëw saaga ma sa benn xarit actuel moo ma wax ni yow dañ la jox xaalis pour Adji Sarr ci korité gi ma woo Adji Sarr ne ko parce que je voulais être sûr que am na yëre am na les bonnes conditions pour sa fête parce que bëgguma aji sa sentir dara lu koy métti mais yow Gabriel ba ma laajee aji sa ndax Gabriel jox na la xaalis parce que il me semble que benn ministre du ma wax turam parce que yoonam nekku ci moom moo la rek loo ko wax mu def ba yow boo koy woo turu turam nga koy woo mel ni yow yaay ministre boobu ngay dem bureau ñu ba ba nga ñeme ko tuddee par son nom pas monsieur le ministre pas monsieur tel dinaa ko protéger te moom protéger wu ma wan na ma ni que sa côté le féete te un ministre doit être neutre écoutez toutes les parties monsieur le ministre vous êtes censé protéger tous les sénégalais waroo am sénégalais bu la gënal par rapport ak beneen sénégalais ba muy feeñ ci sa taxawaay ci xeexu Adji Sarr boo xoolee internet bi ngeen xam ban ministre la war a doon parce que je suis la seule qui pestiférait par rapport à lui man la gis comme pestiféré ci réseaux sociaux yi te pourtant li mu li ma defal état bi lima ma defal suma réew ren ak li ma defal Adji Sarr amul ko ko fi def ci live mais ñëpp lay jàppale ba mu des Françoise Hélène Gaye ndax jëmmi Gabriel ak la mu sëkk moom la ko wax ci man waaye yàlla dina leeral lépp benn par benn yow Gabriel man yàlla daf may atteeg yow nga ñëw aji ne la ah xaw ma ne aji daf la ko laaj nga ñëw ne ma daal di ma bindal t'as pas honte de mentir menteur que tu es xam nga da ngay gis whatsapp bu ma dem sax ci Gabriel danga ma bloqué man bloqué woon du ma bloqué kenn ah naa sa ndey sax dëgg la danga ma bloqué ma la mu ngi mu ni li ma mujjee wax muy le le vingt le sept mai le sept mai nga ma mujjee nga ñëw bind ma la prochaine fois que tu vas mentir auprès de Adji Sarr du ma wax turu ministre bi non seulement je te colle une plainte mais je dis publiquement tout car peu de gens pour affronter position d'ailleurs j'ai informé wax turu non de turu ministre bi waxo monsieur le ministre waxoo monsieur ndia wasi monsieur diw de ton mensonge j'ai informé voilà voilà léegi nag nee nga da nga informé monsieur le ministre monsieur le ministre xam nga Gabriel mooy moo moo jot ci yow man jotuma ci yow monsieur le ministre xam nga mun naa wax surtout tu sais très bien que su ma waxee surtout c'est pas bon pour toi <laughs> nee na d'ailleurs j'ai informé le ministre de ton mensonge man fenalu ma la monsieur le ministre ma tontu la tey ma jox la sama version parce que jéemoo jël sama version et un bon père de famille que tu devrais être en tant que ministre de tous les sénégalais bu nit ñëwee fen la wax la benn affaire monsieur le ministre yow comme da ngay woo ñëpp mënoon nga ma woo d'autant plus que am na suñuy amee en commun yu la proposé ba tey pour nga wax ak man te bëggoo dégg sama version tu m'as pas donné la chance de me défendre et tu pouvais un bon père de famille que tu aurais dû être yemale sénégalais yëpp mu ne j'ai informé le ministre son mensonge man teguma sama tànk cabinet ministre xamuma la jegewuma la su ma déggee ni joxe nga veillu tabaski une somme à celle qui dit partout qu'elle aide Adji je pensais que c'était pour aider Adji Sarr donc j'ai demandé je n'ai fait que dire à Adji Sarr est-ce que le ministre diw am na lu mu la jox Adji ne ma déedéet ma ni ko ah dañ ma wax ni diw Gabriel mii de donc am na luñ ko jox et je pensais que c'était pour toi pour jàppale la mu ne ma noo gisuma dara jëndaluma dara benn sept mètres bi la ma jëndal joxuma lu ma koy ñëwee aw ma lu ma koy ñëwee ma ni ko ma jox la nga ñëw ko ñu yónnee la xaalis nga ñëw ko Adji ne ma noonoo tata bàyyil ma sol rek sama yére sama vaccin yi nekk fii lay sol looloo tax korité gisu leen aji sañse parce que daf ñu wax bu ñu ko jëndal que nekk Gabriel moo koy jëndal yére Gabriel jox ko ko jox ko lu mu koy ñëwee amul xaalis te nanguwul ma jox ko xaalis donc looloo tax gisu leen ko mu dugal ay photo jéggalu Sénégal yi comprendre noonu lafa fa demee Gabriel ñëw ne ma même ta mobilisation c'est moi qui t'ai remis poche mobilisation bi c'est pas la mienne tu avais besoin de photos pour ton association fii ay ay fii ngaa ka neewu fi ba nga mat tongalee pour ni na mobiliser loolu ma bëgg nga déglu ko waxoon naa ko déjà ci ay live waaw il faut mu am mbooloo ma ne la militant wu Kodas yi man mën naa leen déplacer ñu génn mais man bi yoon du ma man du man may dépenser mobilisation bi parce que xam naa ne tu as besoin de ça pour ta crédibilité pour ton bouc li ngay yox tubaab yi lay jox xaalis ñi lay dimbale association bi ña lay financé ma ni la man duma fay déplacement bi mais je peux motiver les gens à sortir nga ne ma ñaata la ma ni ko yaay fay transport bi nga fay transport bi yow man fii du ngaaka amu fi man du aji saal du ma ministre yooyu tam man Thiès laa juddoo màggee Thiès ci lëmpal ba banlieue man nit du jaar sama kaw ku jaar sama kaw daf ma neex donc nga ni ma que on t'achète euh, un billet te donne des sous pour venir waaw maa tollu noonu maa liggéeyal Sénégal ba ma seen xool li may liggéey xam ni sama xaalis laa ciy def matin midi soir ne ma ci 8 mars bi je vais te je vais soutenir nga ñëw def conférence Sénégal looloo tax ma ñëw noonu Sénégal loolu métti la ba nga bëgg a dee parce que da organiser soirée kenn ñëwul Gabriel man dew ma ci benn ministre te demuma ci benn autorité di laaj lenn li ma solo lu ñun bu ñu aji Adji c'est pour lui montrer qu'elle a de la valeur pour lui montrer que kenn gënu ko que yaayam newu fi mais ay yaay ñu fii pour moom mais qu'est-ce que tu fais tu fais de tu tu boobu ngay wax ni génn naa wax ko ci kaw lépp lu ma génn wax ko ci yow yow yaa tax ndax bañ mu ñaaw mais démb ba ma gisee nga jël ko di ko instrumentaliser moo tax li moo waral lii tey Gabriel la Californie wax yëpp dëgg la tabaski Adji Sarr lekkul morso yàpp te xam nga ko yaa ngi Sénégal tukki woo demoo fenn sa fam yaa ngi Sénégal jullit yow nga ni dangaa yow benn xale boo xam ne instant bi yow yaay yaa yow yaa koy dundal yaa koy jox mu lekk yaa koy jox mais jëndal ko xaal mais jëndal ko xaal tu lui achètes un mouton un mouton maximum tu vas dépenser peut-être deux cent mille un petit mouton nga jox ko Adji Sarr nga ne ko tabaskeel mais à défaut sa waa kër bu ñu lakkee yow nga yónnee nga yóon nga woo benn garde yónnee sa chauffeur ñu yóbbul Adji Sarr yàpp mu lekk tabaski xanaa loolu mooy gën a firndeel ñàkk faale bi nga faale ñàkk faale Adji Sarr bés bu ne koo waxal nga ni ko man maa yor Adji Sarr man mii danga ma woo wax ak man une heure de temps pour la première fois c'était pour ma wax nga enregistré ma pour ma wax nga enregistré ma ngay wax ma naan la ah waaw Adji Sarr nii Adji Sarr lu ne nga ko Adji Sarr ma ne la ah bon yow man dama fi yàgg dix ans laa nekk ci réseaux sociaux yi doo gis ku génne sama enregistrement doo ko gis ba ngay enregistré ba ngay wax xam naa ne yaa ngi xaar ma wax pour nga enregistré ma yóbbul ko Adji Sarr comme ni nga ko enregistré yóbbul ko euh, li mu doon expliqué ci digganteem mag Adji Sarr nga dugal ko ci presse contre sans sans son consentement aji Sarr bu ko neexee poursuivre la en justice comme da ngaa bëgg justice te man su ma neexee poursuivre la en justice parce que da ñëw sama inbox saaga ma mu ngi nii preuve yaa ngi nii même les les insultes gis nga ba nga ma saaga appel vidéo laa la woo gis nga vidéo pour que nga may xool dans les yeux nga répété li nga wax ñeme woo ma jël danga daw bloqué nama waaw waaw ne m'en à mon sujet dama menti tu vas prouver que j'ai menti à ton sujet parce que man j'ai parlé au conditionnel et j'ai dit Adji il paraîtrait que on lui a remis quelque chose la veille de la tabaski de la Korité tu n'as aucune preuve, tu es venu m'agresser et tu es venu m'insulter. Ça, c'est des preuves assez. Comme yow loolu rek nga bëgg. Je n'ai pas accusé le ministre. J'ai posé une question. Mais sa jaay doole ak wóolu ñala ngemba sa doole moo tax nga ñëw attaqué ma. ma la n'aie pas peur prends ton téléphone et porte tes ovaires. je te dis prends ton téléphone porte tes ovaires regarde en face et dis ce que tu de dire nga daw bloqué ma ma ko bind dafa yomb Gabriel man man duma ko ñuy jam naa ni da ma waroon jël pour wan ma ni que de toupet sur les plateaux que en inbox parce que boo ma jëloon jour boobu wër na yàlla di nga xam ne jàmbal dëgg nga jàkkaarloo ku dul ragal ku dul man sama xol ci def ci xolal dafa dee sama xol ma ni la woon ma dama la li ma la mujjee bindal dama la ne woon nga ma jël boo ma jëloon jour boobu si <laughs> ngay xam ne dëgg dëgg kan mooy Françoise Hélène Gaye man li may def li ma ñeme man sax wonewu ma ko ci ci ci xeex nii ci kaw parce que man ci dëgg lay dox donc ci es venu me montrer que tu as la république avec toi et man je suis personne qui est défendue pourtant génnewuma ko ça fait ñaata weer mois de mai ba tey nga ma def li nga ma def dikk dima ko def ci suuf ma muñ yàlla xeex bi ñuy xeexal Sénégal ma muñ ko mois de mai 7 mai ba tey lay doog a wax kon xanaa may jàmbaal mai juin juillet août septembre octobre novembre na la ñu nekk non octobre 6 mois suba octobre septembre on est bientôt en octobre nga wax ma di def ma dem Sénégal ak li ma sonn ci Adji Sarr ba kenn ñemewul wax ma taxawal Adji Sarr jël sama bakkan teg ko sur la table dem ba fële dem ba njirnda waa kër Adji Sarr ñëpp Sénégal yëpp xam mérite gi ma am ci Adji Sarr jàmbaar gi ma jàmbaar ci xeexu Adji Sarr bi yow nga yéen nga ñàkk ma yéene toog ak Adji Sarr jour boobu Adji Sarr à la limite bu taxawul woon jàkkaarloog yow kon du ma mës a teg Adji Sarr bët et c'était ta volonté jour boobu oto comme par hasard y avait pas de voiture qui pouvait yóbbu Adji Sarr pour ma tase Adji Sarr mënuma ñëw ci kër ga Adji Sarr nekk parce que c'est ta volonté yow la la la Sénégal yow mi nga xam ne yow yaa tëye Sénégal nii sa loxo tëye ministre yi sa loxo tëye ay xoma DGS xoma DGSNN xoma lan euh, xoma lan direct xoma lan ñoo ñëpp nee nga yow yow yow yaa leen di jox ñuy obéir say ordre yow man Françoise ak li ma sonn li ma jaay sama live ànd ak ay milliers de Sénégalais kenn yelloowul gis Adji Sarr parce que yow bëggoo ko et ce jour là c'est yàlla moo tudd ni dinaa gis Adji Sarr mais tu as tout fait pour que ce pas possible ñun ñoo mujjee wut oto wut oto wut chauffeur wut oto pour que en tout cas aji sa mën a ñëw gisanteeg man ndekete yow nee nga ko bu fa demee bu mu ma photo bu mu ma ak man maanaam bu mu bàyyi benn trace que mës na gisanteeg man fo waat pour quelle raison man Adji Sarr photo man mun na nekk problème ci yow ba nga jox ko instruction yooyu maa ngi ñëw ci après la ta réaction ba nga gisee photo yi ba Mollah Morgun ak waa kër Ousmane Sonko taxawee waat ne bilaahi Mollah Morgun moo taxaw ne bilaahi walaahi talaahi Françoise musuta gis Adji Sarr musuta Adji parce que yow moment boobu wax boobu ba buñ ko toppee probablement yow yaa ko wax waa kër yaa fuité information boobu Mollah Morgun damay wax wax déglu leen bu baax sama wax dama ne probablement je parle au conditionnel parce que comment se fait que yow xamoo woon ne photo wu Adji Sarr parce que Adji Sarr dafa photo ak man def ay vidéo ak man ba noppi noppi ko ba noppi nëbb la ko aji maa ngi jéggalu du ma la jël Adji Sarr du ma la jël tu es déjà mal en point lii man ak la deux adultes deux adultes la yow toogal sa yoon nekkul ci lii Adji Sarr ngir yàlla Californie yoonam nekkul ci lii man moom la léegi nga yow du ma gis Adji Sarr ba tax ba Gabriel nga def lépp Adji Sarr amul chauffeur tout comme jour ba nga xam ne ñun dañ ko defal di ko sagal benn grand hôtel de la place nga yóbbu garde corps yëpp dem kenn nekkatul ci kër gi ku mun a génne aji saa kër gi ba muy ñëw ñëw ci li nga xam ne ñun dañ ko ko organiser en son honneur di ko sagal maître El Hadji ñëw taxaw taxawaay bu rafet ñu koy remercier yow aji mënut a ñëw parce que le projet c'était ñun dañoo bëggoon aji ñëw ñu génne ko ni ñi xam ne aji n'est pas n'est pas en prison que fekk mooy jamono yi ñu wax ne aji dafa nekk en prison yow Gabriel nga nga jour boobu Adji Sarr amul sax garde corps bu toog ci kër gi parce que madame la la princesse de Salémé ne voulait pas que Adji vienne parce que kon Françoise dafay am lu ko neex tout ça tu sais que un jour ou l'autre il fallait que ça sorte parce que tant que tu boo ko dans des proportions acceptables du ma génn man Françoise Hélène Gaye parce que ñëpp xam nañu damaa mun muñ xale bi dafa sonn ku ko yërëmul damay woo madame la première dame seen yoon nekkul ci dossier bi laalu leen ci mais vous êtes en train de regarder une fille souffrir non assistance en personne en danger man maane ne Adji Sarr elle quasi séquestrée par Gabrielle kan demal porter ma plainte Gabrielle Adji Sarr man mënuma koo gis munuma naguma ko woon presque naguma ko li taxoon ma defoon audio boobu yow yaa tax te xam nga ko léegi pour lan nga koy dugal ci sa audio boobu nga fuité pour wan nit ñi ni que man damay génn di wax aji bàyyi naa la te yow musoo ko def mais yow la may la tax ma yow ne bàyyi naa yow yaa koy jëf yow man jëfuma la lu bon duma la def lu bon duma la def lu ñaaw duma la wax lu ñaaw defuma la waxuma la nag ba noppi tu fais croire aux gens que maag yow dañoo nekk à couteau tiré moo ngi nii yow yow ak sa doomu ndey yàlla benn la lu ma la fay wax lu ñaaw waxuma la lu ñaaw yaa ñëw saaga ma bloqué ma ma bañ sax nga man ma ubbiwaat ma bloqué waat la yow mu ngi nii dama la bloqué danga ma bloqué man ma bloqué la dama la bloqué ma ni noo dam koy ubbi bu amee fit mu ñëwaat ba ci yàgg ni noonu naa ko bloqué parce que sinon day ñaaw parce que li ma ko wax xam naa ni mun naa ko wax musiba mu yóbbu ko dans la presse je me suis protégée ma bloqué la parce que xam na sama xol su ma meree su ma joge lu ne lu ma ragal amul léegi yow Gabrielle Kane ñu ñëw ci sa allié en ensemble détruisons Françoise Hélène Gaye sax allié du moment maa ngi xaar seen bos seen bés dina ñëw pour mu leer man jote ak Mati trois pam defuma ko euh, Mati moo woon leen Mati Mati li ma mujjee wax ak moom Mati de defuma ko waxuma ko ba muy métti de maa fi newoon ba waa Sonko waxee Mati yow Gabriel gëm naa lépp ci yow la jóge ndax ba may ànd Mati di liggéey c'était au au moment les plus durs moom de sa de sa présence fi mooy après ba mu invité waa Kodas invité ay maître El Hadj Diouf waa Sonko yi ne dañ koy éliminer ci réseaux sociaux yi ma ne ko du fi amee may jog 6 heures du matin yenn saa six heures du matin di xa di préparer ba huit heures bu muy dugg man huit heures lay nekk ci man di ko ko defal un an un an xaaruma ci sax merci ba mu mujjee mel ni man sax da mati moo nekk ci kaw man ma nekk ci suuf te moom mati xam na loolu yow nga dugg ci diggante bi ci rumbaandaat di jël di wax di def seen yëfu jig man yooyu mënuma ko ba ma gis Mati Dieng ma commencé xam ni naa préparé wu la preuve mu ngi nii Mati dafa ñëw wax ma ni benn journaliste bu tudd Bamba man samay wax day leer Bamba ba ñu ma la woon jox ay information de dama ne Mati duma nègre de service dafa ñëw ne ma dangaa soxla ay information ci benn waay ma ne ko du ma nekk de service ma li ma lay defal cause bi moo tax et ça me prend beaucoup de temps <laughs> mais jotewuma ak Mati xuloowuñu ndax ba may mujjee bàyyi Mati trois pa mu ni kër laa ko bàyyil tontuwuma ba tey ba sànq waaye bu nit ñuy waxee ci kaw day mel ni man damaa nekk di xuloo ak nit ñi xulóowuma kenn si ñoom xulóowuma ak Kaliphone xulóowuma ak Mati xulóowuma ak Bah Diakhaté xulóowuma ak Gabriel Kane mais peut-être ciao bye ma prise la daal c'est quoi le problème mu jékki-jékki mu mu mu mu mu gos ma gos ma gos ghost xam nga lu ñuy wax en anglais ghost mu def ma mu def ma ghost maanaam ma nekk fantôme parce que looloo ko arrangé. parce que stratégiquement man sama mbooloo mobiliser naa leen ba ñu xës nekk ci moom di ko jàppale jàppale ko moom donc moom mu jàpp ni soxlatuma li mu soxla léegi mooy ku koy ubbil lépp ku koy ubbil porte bureau ministre yi ki nga xam ne day wax ni moom ministre yëpp nii la leen fii la leen tëyee la soxla donc moment bii ni li ko arrangé mooy mu ànd Gabriel mais ànd leen seen ànd te bañ may yàq bañ ma xeex parce que ba tey loo leen ma bëgg ñàkk bëgg ñàkk bëgg ku ci nekk am na bés bu mu la njëriñ Mati bu dee sax benn jour amal naa la liggéeyal naa la te yàlla tax Mati je me solal Je me suis saignée pour te soutenir. Et tu le sais. lu ne ba jël sa rakk formé ko pour mu lay jàppale mati ba ma jàngalee sa rakk laa la gëj a dégg parce que rakk mënee ko liggéey bi moo la doon defal ci lalo la gëj a mati trois pommes mais that's ok that's Bamba Kassé yoonam nekku ci hey eh, gis nga kii xaaral ma bloqué ko parce que parce que munoo nekk saa yu may live nga wooma di bloqué di yàq sama live bi je je considère que spam voilà parce que il faut il faut pas insister Bamba yoonam nekku ci c'est que dafa bëggoon ay information après niko ko mati ma ni ko je peux pas je peux pas toi déjà damay yàq sama cycle nelaw léegi laa recommencé di nelaw normal les dimanche c'est yàlla mais je l'ai fait avec bon cœur dama ko def pour dimbali la pour dimbali suñu cause bi jiwuma la lu bon <laughs> jiwuma la lu bon mais lépp li xew ci suuf maa ngi koy dégg mais yàlla dina àtte lépp lii commencement la rek Bamba Kassé yoonam nekku ci bàyyi leen duul bàyyi leen fen xamuma ko musuma wax ak moom bàyyi leen Bamba Kassé dafa laaj maki mati ay information mati ñëw di ma wax ma wut ma ma xoolal ma ne ko du la nègre de service nag non plus je me fatigue pour toi pendant un an mais je là pour euh, faire euh, le le de service quoi ok na leen yéen waa Sonko ngeen ngeen mën dul li moo tax Sonko dara mi lépp ay yàqu maintenant maître El Diouf li tax li li tax may génn tey sa réaction bokk na ci parce que maître El yow xam nga ni que man du ma supporter yow ba nga may xam maître El Hadj yaa nga xamee Sénégal fekk ma yow sama salle de sport nekk conseillère ministère yow sama oto yow sama nekk à l'aise bëgg Sénégal ak bëgg jàppale néew di doole moo ma dugal ci li xam nga ko te loolu 2005 la man. ba may nekk yow samay deux teranga cinq la fekk ma nekk Allemagne di def doctorat ba nga may xam Maître El Hadji fekk doctorat laa doon def Allemagne xam nga ko donc ku am niveau doctorat xëy na yeggaliwu ma ko ndax manque de moyen parce que doctorat dafa laaj moyen Maître El Hadji yow témoin nga ci kan laa nekkoon avant que ni xeex bi sox du xaalis sama fi dugal parce que xam nga ni principe la te aw ma fi lenn awma fi dara dara dara dara dara dara wutuma ci dara duma supporter je ne peux pas avoir un bac plus huit te su ma ko waxee ñenn ñi di dee mais ku leen man ma def choix jublu woon ci jàng ba tax ba man ba tax ba man ma yéex am doom c'est des choix mais lool nag aussi il faut pas que ngeen bañ que nit di wax ni que dama jàng man ba may xam maître El Hadj Diouf je faisais mon doctorat et j'avais une salle de sport et une unité de rééducation à la piscine olympique le maire de Dakar co partenariat temps boobu maire de Dakar c'était Khalifa Sall le directeur de la piscine s'appelait un certain Mactar Diop man damay joxe ay éléments mu leer ngeen vérifier duma fen donc quand je man nekkuma ci lii pour man bëgg Sénégal ak sori Sénégal xool ni nii rek laa mën a dimbalee Sénégal. Gabriel day porté waate plainte bu dee am na lenn lu ma ci wax lu dul dëgg na dem porté ma plainte parce que moom moo ñëw saaga ma te man aji sax dama ko est-ce que joxuñu Gabriel on a on am na xaalis bu ñu jox Gabriel. fan yi est-ce que joxuñu ko pour mu jàppale la ci ci ci fête ci fête nga ñëw saaga ma les insultes même en privé constituent un délit nga dem yàq sama der ci ministre te yaa ko waxal sa bopp que dinaa wax naa ko wax naa ko ko waxoon ni dinaa ko ko wax danga ne wax naa ko ko yaa fenal nga ma ci ministre bi te fu defu ma dara ci men ko dara waxuma ko ok maintenant maître El man félicité ko rek laa mën a def félicité ko parce que moom tamit c'est vrai que avocat la mënoon na jàpp mënoon na jàpp rek ci ne avocat la mais dafa wàcc sur le terrain nekk sur les plateaux fu mu dem fa lu ne mu daj ko lu ne ñu def ko ko donc gàcc nga la ma yow maître lenn rek moo ma métti mooy li ma boole ci même catégorie ak ñoo xam ne wax dëgg yàlla bokkuñu tax yow xam nga ko yow sa bopp xam nga ko parce que ba nga may xam ay 2005 la te ba may xam gis nga ma yow sama oto bu baax yow sama salle de sport yow samay business nekk sama teraanga donc du ma du du ma ñi euh, parvenir ñi door a yegsi ok maintenant je pense avoir clarifié le fait que jotewuma Kaliphone baal naa ko lam ma wax parce que daf ma woo baalu ma Gabriel non seulement daf ma tooñ mais dafa continuer di dugg di ma yàq dugal audio boo xam ni man j'étais la principale visée j'étais la principale visée dans cet audio là moo tax ma kenn parce que bët bu rusul toj li ma muñ muñ naa lu bari ne duma wax et j'informe les autorités que Gabriel jotewuma ak moom moo ñëw sama inbox saagama xam naa mauvais traitement yu muy infliger la victime présumée de viol qui est ki Sarr sous sa garde bu fekkee ni mën ngeen dimbale Adji Sarr ngeen organiser ko famille am jëlal ko kër mettre ko en sécurité def leen ko et c'est une urgence parce que yenn saay mu soumettre la petite à des exactions ba xale bi daw semaine bi moo ci mujjee Kaliphone wax na leen ko wax na ma ko démb confirmé na ma exaction yi man xam naa ci dara et ça doit s'arrêter afficher sur les plateaux d'être une militante des droits des femmes alors que en dessous on maltraite une femme on la fait vivre des privations privations laa wax man aji saa woo amul courant wooyo jeex mais aji amul revenu mënul liggéey c'est un droit fondamental qui lui est privé elle peut pas travailler alors l'État doit surseoir à ce loolu c'est dans la convention des droits de l'homme xamuma xaw man je connais pas Bamba Kassé ba Sénégal xawma Bamba Kassé musuma wax ak moom xamuma woon sax kanamam ba temps yee jàkkaarloo xam naa def naa laa doog a ma ne ah kon kii Mati doon waxal ay information banale entre journalistes ñoom entre journalistes dañu laajtante ay information mais ba mu ma laajee information dama ko ne je suis pas la nègre de service peut-être que dafa tombé jour ma sonn mais sa réaction boobu laa ko gëj dégg maintenant Adji c'est une présumée victime qui attend un procès qui doit être fait le plus rapidement possible xale bi sonn na et je ne pense elle n'est pas dans les meilleures conditions de vie et j'en sais quelque chose man nag ministre bu ma mës a yónnee xaalis na ko posté jox Gabriel mu posté ko ministre bu ma nee Françoise ma ne ko oui mu ne ma Adji Sarr de dégg naa yaa koy jàppale je te donne ce maa ngi lay jox xaalis bi pour nga dimbali ko poste leen ko jox leen ko Seneweb ñooñu ñooy ñooy xaritu Gabriel jox leen ko waa Seneweb premier après nga jox leen ko waa sans limite deuxième ñooñu ay xaritam lañu këram la donc c'est bon jox leen ko ses premiers amis ses premiers alliés mes premiers ennemis nañ ko posté mënoon dee wax bi du am tey mais comme dama nekk di muñ pendant un an ngay def may noppi ngay génn di communiquer ci li ngay def d'une façon bu pernicieuse parce que yow da nga may def ma génn éclater nga génn nit ñi yow ngay def maintenant la sainte nitouche ah man de Adji Sarr de ah wax dëgg yàlla de ah, eh, ak lu ma mënte joteeg moom ak lu ma mënte joteeg moom musuma génn ci kaw mais nooy yow yow nooy génnee te yow yaay def yow yay def man ngay def ma muñ ba sonn kii affaire vidéo boobu noonu ci ci palais de justice bi dangaa génn ne man François du ma jaral may fen man léegi Gabriel du ma jaral ma fen Gabriel day toogaxal aji Sarr aji Sarr day toog du am dara tabaski aji Sarr lekkul yàpp Gabriel dafay violente verbalement ak physiquement ak Adji Sarr pour quelqu'un qui défend Adji Sarr ou défend la cause des femmes. jagaloo ma woon fen jagal du parce que man xam nga fenuma dangaa dugg ci live matinée jagaluma fen dem ci plateau yi ne François effectivement dangay tooxal Adji Sarr te xam naa ni bu ma paree live bi nga ne ko génnal kër gi yoonu Adji Sarr nekkul ci lii porte tes ovaires comme ni mu la ko bindee woon inbox affronte ma man Françoise parce que man nga doon affronté 24 heures sur 24 nga nga doon attaqué mais ça ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mooy nga jël sa audio enregistré Californie mi lay soutenir di la wax lu la neex du dëgg nga jël ko yóbbu ko dans la jox ko say xarit de la presse pour yàq ma man man dundeewu ma Adji Sarr dugguma bureau ministre laajte lenn pour jàppale Adji Sarr ñun dañuy cotiser jël suñu alal jàppale Adji Sarr démb ak tey nag du génn di attaqué Kaliphone piège bi foofu la woon pour ni man ma génn attaqué Kaliphone kalifon yàgg na ci réseau yi kalifon yàgg na ci réseau yi xamante nañu suma ma àndaatee Kaliphone bëgg succès wu président Macky moo tax su ma àndaatee Californie bëgg réussite cause bi moo tax ku ma yab cause bi moo tax mais yow Adji Sarr li nga koy def ku bëgg jigéen kuy défendre jigéen du ko def nit masta ni koo xam ne danga ko jël dugal ko ne yow elle est protection yow yaa ko yow te xam nga bu baax li may wax bëgguma nag mu gën a ñaaw parce que ñaaw na ba pare te yaa tax mu ñaaw il ne faut pas provoquer les gens faut pas surestimer sa doole maa ngi xaar nag tous les ministres de la république yi nga wax ni yow yow yaa leen sa loxo ya nga ña sa loxo ba ñëwee nañu di la neexal di la raamal maa ngi xaar ndax man lii wutuma ci dara tu trop fait ma noppi di la seetaan dugguma ci détails yi nag yi nga wax te ma yoo parce que loolu du mën a du sama du sama digganteeg yow loolu sa digganteeg Adji Sarr yi Mati Trois Pommes am na trois choisir ku ko neex ànd ak mais naag ba muy laata sant jaañ fal la man waa jubbantik waa kodaas ñoo doon xëy fajal xeexal la ba ba ñu la tegalee tegaleen yow ni dañ lay éliminer des réseaux sociaux bu neexee tey defe naa ne waa am nañ ci am nañ ci mérite mérité wuñu yenn yi man mérité wu ma yi te xam nga ko mais man fu ma toogee ak yow dama lay xool dans les yeux mais est-ce que tu pourras me regarder dans les yeux defuma la de wane naa li ma la mujjee yónnee kër la Mati mais alliance ak Gabriel moo la arrangé parce que li nga soxla man mënuma la ko jox parce que amuma ministre man amuma nijaayu ministre ma xaritu ministre amuma faru ministre amuma ministre bu ma lay présenté je te comprends mais mën ma bañ a xeex <laughs> mën ma bañ tendance parce que karma dafa graaw mati karma dafa garaaw ak dafa sew te man amaluma la ak mais xoolal yow ndax amaloo ma ak ci li ngay dox ci suuf ak li ngay def ni ngay doxalee <laughs> di jon waa bi ñu bloqué xaama bloqué waat la nga wuti idi jon waa bi ñu bloqué waat deux fois <laughs> il faut ma bloqué ko waaye <laughs> non bindul dum ko mën a bloqué <laughs> non Facebook maintenant fini je ne peux pas dire que je ne dois rien à personne parce que ne serait que bu deux ou trois fois Mati invité nga sa live ma wax waxu Adji Sarr ñu bokk xeex mais ku ci nekk <laughs> tu as le droit de faire tes choix ku ci nekk tu as le droit d'aimer les uns et de ne pas aimer les autres man wutuma ku ma bëgg je ne cherche pas à être aimé Je cherche à militer pour la vérité. Je cherche à être un soldat du Sénégal. Californie jotewuma ak moom waxuma ko defuma ko ba ba muy dem di rencontrer première dame ñu ngi wax maak moom ba ba bu fa jógee maak moom ñu ngi wax ba mu nekkee ci bi ba mu gisee président ba pare woowatuma man tam ma toog seetaan bloké bloqué wu ma ko mu ngi nii bu dee na ma dafa wax ni dafa effacé sama numéro démb laa gis kalifon woo ma mu ngi nii Kaliphone Kaliphone Sall maa ngi gëj a moom le ñu ngi gëj a wax defe naa le 14 juin. en tout cas mooy lend ba président demee kii mu ngi ni waxuñu waxuñu waxuñu ba démb ma gis Californie bind ma woo ma gis appel en absence mu bind ma ne ma sista woo ma s'il te après ba ma ko woowee mu expliquer ma li xewoon ne ma baal ma ak maa ngi lay jéggalu maa ngi lay jéggalu ma ni ko jéggal naa la Californie balaa mooy si ma ne ko baal naa la ak <laughs> man eh, bul yaakaar ne bul yaakaar ni dinaa la attaqué man ku nekk ak président de la république duma la attaqué parce que xam naa ni loolu la waa kër Sonko di xaar duma ko def maintenant amul lenn lu ñuy wax ñu dellusiwaat ci aji Sarr Ousmane Sonko dafa violé ab go dañ ko présumé dafa violé benn xale moo génn ne daf ko yëkkataan j'ai même pas euh, Californie li ma xeex ak Californie kenn xeexu kook moom ci àddina mais xoolal dama ne ci jàppale président de la république laa nekk te dootuma kenn dootuma gis ci xeexu bas étage mais comme damay défendre doomu aadama di défendre Adji Sarr di défendre président de la république je ne peux pas ne pas me défendre quand mon honorabilité est mise en mise sur la balance chaque jour par Gabriel Kane ki ma mës a dimbale moom dafa wax ni da koo def ndax man daf may jàppale ma ñëw ma defi loolu la may xasee ni ma def conférence loolu métti ko xase na ma ko mu ngi nii c'est des preuves aussi devant la justice Kaliphone ragalu ma xeex na Kaliphone pendant presque deux ans mais loolu dañ ko weesu munu leen fexe ba ma toog di saaga Kaliphone wala di xeex ak parce que maag moom yëpp président de la république la ñuy xeexal donc bu leen sonn pour ni di ngeen wax ba man ma dem attaqué ak kii Gabriel attaqué wu ma ko de muñal naa ko presque neuf mois wala un an may doog a ñëw tey ma leeral sama der Adji Sarr un franc boo xam ne dafa jëm ci Adji Sarr teguwul sama loxo benn nit ku tudd bu nekk fii mooma mës a yónnee cent kii ci sama kii bi nu ma tudd euh, ma yónnee ko ko sëram laa ko yónnee euh, tantam Binta man Françoise duma encaissé xaalisu njëlim. call firm IDINDIY duma lekk xaalisu njërim la duma tooñ njërim duma tooñ njërim ko def danga koy gis jomba naa man xaaral na yu kii jomba naa lekk xaalisu aji saa te man wax dëgg yàlla yàlla def ma nattuwul ma nekk ci ay besoin ba seede yàlla gannaaw ga ko gannaaw ga sax nga koy seede damaa jomb lekk xaalisu aji saar man amul lenn loo xam ne maa ngi koy def tey te aji saar tax ma am ko man ba may voyager di dem France di def ay mille 2018 avant élection yi def naa tournée diaspora xamuma woon aji saar jël sama avion dem Paris def tournée dem Italie door a dem Paris tase fag waa diaspora bi sama dem New York dem naa New York plusieurs fois di dem Bamba Day ci ak ay événement di fa def ay conférence te musuma xam Adji Sarr li may def nii dama nekk lu ma doon def la avant sama dem couvrir président ñëwam Amérique ça n'a rien à voir avec Adji Sarr te waxuma fa waxu aji Sarr pour sax mu leer ni man sama man Françoise la femme politique mooy dem États-Unis moo moo dem euh, New York donc dama bëgg mu leer. ok waaw Idi maa ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. waaw François maa ngi leen di ziar di jox ñëpp seen wàccuwaay fi ngay daanalee rek laay dëggal nekk nii xam nga nit ki mun tax mënta saabu mënta fóot boppam. Mhm. saabu mënta mhm. fóot boppam faaw nga am ay nit xam ne ñoo mën a fóot ñoo mën a fóot. ñoo mën a témoigner damaa bëgg waa Kodas ngeen dugg man kali xamuluma dara xam nañ ko yow bu fekkoon lu ñëw sa loxo lay jaar bu boobaa ñu xam waaye danga am danga am noo tëg di tëggee kodaas mm. xaalis kodaas doo ko laal doo ko jege merci beaucoup nag ñun ñii nga xam bu doon kodaas ñun ñu am na bénéfice ñun ñi ñoo ci bénéfice ndax ñun ñi ñooy lekk sa xaalis man li leen di jox sama xaalisu bopp laa leen di jox waaw man moom chaque jour ma lekk sa xaalis man moom maa la gën a sonal ci àdduna maa la non non non bul loolu mukk chaque jour ma lekk sa xaalis dama xam ne yow dangaa mën a muñ te xamoon nga ni yow am nga ci ñoo xam ne pour ñu accrater def euh, Gabrielle kan nga xam ne ñëpp dinañ ko seexlu lu yombul lii maa ngi koy dimbalee doomu aadama yi. man ko parce di gis nit ñi may dimbale. lii xeexu xeexu Adji Sarr tax ma xam nit ñi may jox xaalis yi. Adji Sarr moo tax nga muñ hmm. moo war a xam boppam daa xam ne lii du cëram te mu xam. xale boo xam ni réew nga fuuy ba pare yow ku wax nga dugal ci làmminam mu képp képp yow amul sax ngor. ngor non kii moom jawul sax ngay wax ak moom bu ko ko xas de bu ko xas ni ko may lu mu wutee yi euh, beneen bës ni porté na. non du ma ko xas waaye dinaa dinaa mu xam li kay wax dëgg la yow nag loolu ñoru la yow moom yow moom kooku ñoru la. Mm. waaw ndax parce que li ngay liggéeyal Sénégal gis nañ ko ñun ñi ñëpp kenn nelawul dañuy xëy ngay liggéey lu ne. François ku la heure bu la waay woo dina la jot heure bu la waay woo jot la nekkoo nit koo xam dalay nit dalay woo ngay fay say téléphone wala bañ koo jël nit heure bu nekk la lay woo diis la soxlaa man mii nit damay diis soxlaa ma woo la diis la soxla boobu nga faj nit kooku te man sama xamoo nit kooku ay hmm. nit problème ay ay ay affaire de doom ma ñëw wax la ko te xamoo kooku xamaanoo kooku da ngay jël sa alal jox ma a jox leen. Mm. kon am na ñoo xam ne moom boo dee wax ak ñoom sax da ngay day day mujj doon leen mais doo seen moroom doo seen màppandoo yow li nga war a askan bi yaa ngi koy def ay mbooloo yi mbooloo nga jiite te li nga war ñoom yaa ngi koy def nekkoo fii nag nekk boo wala colossal wala ngay wër saal ministre yow bañu ko ba da ngaa diñ sa bopp bëggoo la yëpp. Mm. doo fekk kenn doo woo kenn. yow ku la soxla moo lay wowal boppam hmm. loolu nag nga am moom mooy l'essentiel bi si la la ñëpp nawee hmm. Sénégal boo ñoom bu ñu waxee nga wax bokkuñu parce que yow wute woo aji xaaj bi doon xaaj nga ko wutee yow doomu nga fi kon yaa ngi yaa ngi yaa ngi taxawaalu ci buntu ministre yi président yi dafa defoo ko da ngaa yow yaay génne sa xaaj di ko def ci ñiy défendre Mm-hmm. yow nit day am problème portable sax ñëw na la am na problème portable François Hélène doo teg baat nga jënd wala nga ne ko xaaral ba ma ba fayeeku wala xaaral ba ma jot mm-hmm. xaalis. Mm-hmm. te loolu sa coobare bopp nga koy def. kon nit ku la xamul mooy bàkkaar ci yow te nag bàyyi leen ñoom ñuy wax ci xalima coow daa mel ne nag ci xalima coow boobu lañ la bindee bu ñuy coow rek ngay sori yow na ñoom lañuy coow rek ngay dem. parce que lii koo weesu. dafa am étape boo xam ne yow réew mi sax dama ne la yelloo nga nga am poste ministre yelloo la nga doon ministre ci réew mii réewu Sénégal yelloo la nga dooni maire Sénégal hmm. parce que danga ko fee liggéey fii nag kenn saxalu kenn lem lu fi waay góob rek lu fi waay bay rek moom ngay góob li nga def nag ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi ci teg si xoolal kii may naan kii may naan yow ndeke da am say boy man dama am ay nit waxuma la ay boy de ay kilifa ay maire ay pala am partout dans le monde wallahi azim ok ba ba mu ba xam nga procès aji sa euh, confrontation bi xam nga fekkuma fa ba mu soxlaa mbooloo daf ma woo ne ma pour ma mobiliser wallahi azim bu ma nee ma mobiliser <laughs> man nawu ma woon mobiliser de dama ko yónnee dama ko yónnee samay nit moom moo fay paasu ñooñu te gisuma loolu et c'était normal parce que fii ngaaka newu fi de ñun ay doomu Cees lañu ok man daal loolu laa amoon di la témoigner te fa ngay wax nag te man dugguma day mel ni lu dara la quoi faaw ma dugg témoin amul benn problème parce que yow boo kenn du wax kenn du kenn du la wax bu waxul woon de man wax audio boobu c'est la goutte qui a fait déborder le vase ok wallaay wallaay thank you so much Idi maa ngi lay maa ngi lay ziar di la jaajëfal di la le combat continue waaw waaw yow doomu président Macky Sall ga na nga ko taxawoo ci réseau yi gis na ko na ko taxawoo ci réseau yi gis na ko et on va continuer ce combat là lu ñu muñ rek man su waaw muñ rek moo tax ñu koy muñ di wax ni ñooñu di ma wax ministre <laughs> man man ñu ministre yi fi nekk ñi ma ci ëpp ñi ma ci ëpp diplôme bariwul di est-ce que bëgg na ci est-ce que na ci ñu ma ëpp diplôme euh, euh, diplôme ba ba ngeen naan ma nee na ministre man mën naa doon lu raw ministre Sénégal dama avez bëgg ngeen xam ni Gabriel bu demul woon audio bi mu enregistré c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase yàgg nay def ma noppi mais à un moment il faut que ma setal sama der OK, lii ça n'a rien à voir Ousmane Sonko, toujours accusé de viol, qui n'a jamais déféré devant les autorités pour répondre de crime bi nga xam ne moom lañ ko euh, wax ni moom la def te dañoo ne ñun suñu combat c'était pas de dire que moom moo violé suñu combat c'était de dire que néew di doole bi di Adji Sarr njëriñ bi di Adji Sarr amul yaay bu koy doxal comme yaayu Adja Thiaré amul yaay bu koy doxal comme yaayu euh, maire maire seen xale séeréer boobu Adama amul yaay ju koy doxal comme yaayu miss bi waaye ay sénégalaise jël nañu seen bopp jël nañu seen bopp def seen bopp ñu doon ay yaayu Adji Sarr ñu taxaw di défendre Adji Sarr ok pour que procès am ñu xam fan la dëgg féete pour muy clair donc man fii lay yemale tey sama sama live bi di wax ni que Gabrielle bu fekkee ne dangaa gëm ni jigéen kenn woo ko néewal doole arrêtel di néewal doole Adji Sarr di néwal doole Françoise Hélène Gaye di attaqué Françoise di ko yóbbu di ko boole ak ay ministre di ko fenal parce que ministre boobu musuta am sama version musuma wax ni danga jox dama ne dama dégg te mën naa bu ma mis bu woon dinaa wax kan moo ma ko wax parce que man ay caaxaan doxuma ci nga ñëw saaga ma ñëw won ma ni que yow danga am ay ministre yoo xam ne say xarit lañu que yow yaa dem wax ministre bi ni Françoise fenal na la man damay fen man kan moo ma xamal fen ba ma nekkee ci réseau yi kan moo mën a génneel ni Françoise fen na est-ce que mus ngeen gis sama vague boo xam ne damaa wax dara ñu wet ñu wone ko comme ni ñuy wone waa kër Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko ma wax ni lii moo am ëllëg suñu won ñu wone preuve ni que leneen la génne leen ko man non du dama allergique fen ba ku may xeex sax danga may xeexee ci dima dima jiiñ fen loolu waa Sonko dañ ko teel a comprendre mais loolu wàññiwuma dara parce que xam naa may kan te ñi ma samay nit xam nañ ko xam nañu ku ak kan la amal affaire je suis une personne digne je suis une personne d'honneur sama alal bokk naa kook nit ñi ñemee naa jël sama alal ci cause boo xam ne c'est une cose nationale muy won Sénégalais kan mooy Ousmane Sonko won Sénégalais yi ni que ñu déshabiller Jean pour habiller Paul il n'est pas question de changer le président Macky Sall tant que gisuñu alternative bu ko gën te Ousmane Sonko waxuma la mënul sax nekk jardinier wu palais bay nekk président de la république maanaam palais bi Macky président Macky Sall nekk nii tey Ousmane Sonko mënu fa nekk jardinier amul compétence su jardinier parce que du am sax rigueur bu mu gérer correctement wala ployer bu président Macky Sall yoroon ployer biir palais boobu Ousmane Sonko n'a pas la rigueur rigueur ak éthique bu mu gérer ployer boobu correctement bay wax ne dafay bëgg nekk président de la république le président de la république dafa taxawal Sénégal il sait très haut le l'image du Sénégal dans le monde ba ma gisee dofu Ousmane Sonko yi di wax eh Macky dafa tardé Macky Sall tardé xoolal même bu tardé il peut se permettre d'être en retard yéen kan moo mën a permettre kilifa ay kilifa dara nga permettre ku nekk en retard ba ñooñu woowu ñu la naan la mais Macky ça pas la tête mais où es-tu mais dégg nga ko mu naan ko oui Macky mais tu es ah ah cinquante neuvième ah d' accord d' accord ah cinquante neuf mais daf koy neexal te loolu moom malgré le fait qu'il vient d'un pays bu nekk ci situation bi ñu nekk bi Sénégal nekk imposé na ba une des cinquième ñi bokk ci cinq premières puissances yi di ko neexal bu tardee sax ñuy daw pour di ko wax ni foo nekk yow la ñuy xaar uteeg Ousmane Sonko nga xam ne gone gu ndaw moo ne bu présenté woo moom itam dina ñëw présenté woo muy Adji Sarr nee na bu Ousmane Sonko nekkee candidat moom dina nekk candidat te elle a raison te bu taxawee Ousmane Sonko ma votel ko moom Adji Sarr man dama nekk une femme d'honneur li ñuy yàq sama der yëpp dama koy wax pour ministre de la république yooyu ñu yóbbu samay ñu may fenal ñu may ci ñoom dem leen ngeen xool ndax mës naa jël audio man dugal ko dans la presse audio wu nit est-ce que mës naa waxal nit enregistre ko dugal ko dans la presse sama noon sax enregistré wu ma ko masta di ko dugal dans la presse masta koo xam ne dafa ñëw dima ma jàppale ngeen xam ni man ki ngeen di ki ngeen di protéger maag moom duñu benn bokkuñu registre éthique Adji Sarr musuma koo manqué de respect damay waxak ak moom damay wax ak comme une mère mais musuma ko saaga Gabriel saaga na ko ba tàyyi ah, elle a été violente avec Adji saa plusieurs fois physiquement verbalement li ci des ci mbiru xaalis nag xawma ci dara parce que xamuma mais bañ ma waxee ni dañ ko jox xaalis ko korité ma naan aji aji di ki ma ni ko yoo xam naa Gabriel bu ñëw dina la jox parce que on m'a dit que jox nañ ko xaalis loolu rek laa wax mu ñëw di ma saaga ndey mu man astafurla saagoo ma ndey ñëw di ma traité de tous les noms d'oiseaux en inbox loolu ku ma ko def ci àddina waxoon naa ni tôt ou tard on va régler ces comptes là te naroon naa bàyyi ba dossier Adji Sarr pare yow nga jëlaat am la la tuppe enregistré Californie mi ñëwoon di la jàppale jël enregistrement boobu jox ko say journaliste pour yàq ma man Françoise Hélène Gaye di wax ni waaw moom kay moo jël François Adji Sarr def ko wutukaayu xaalis Kaliphone xam na ni loolu du dëgg mu ne la Adji Sarr moo ne Gabriel moo may jàppale Kaliphone xam na ni Gabriel ba Adji Sarr bi wax ak Gabri euh, euh, ak Kaliphone ci live bi dafa ne man waa CODAS ñooy sama ministère de l'intérieur euh, sama ministère de la femme après mu tudd la ci yow ba ngay ñëw ci combat bi c'est presque neuf mois après on a commencé le combat au mois de février qui est arrivé au mois de fekk na yow li li li ci nekkoon ci danger ñun dëkk nañ ko dëkku nañ ko ba pare Gabriel tu es venu enfoncer des portes déjà ouvertes tu es venu enfoncer des portes déjà ouvertes par Codas et par Françoise Hélène Gaye amul loo yokk ci xeex bi à part peut-être lii nga xam ni côté nga tëye Adji Sarr jox ko xëy na xaw ma ndax yaa ko jox fu mu nekk xaw ma lijjantiwuma lool ça ne concerne pas apparemment si yow yaa ko jox fu mu nekk loolu rek nga ci def à part ça foo dem ne maa ngi jox deux cent mille francs par semaine deux cent mille semaine ban kan moo koy lekk Sénégal yow dañ laa dénk kala dénk dafa la ne tëyal ma xale bi le temps ma réglé situation bi ba mu ñëwee ne la jox ma xale bi dangaa bañ Gabriel dañ la dénk Adji Sarr Adji Sarr am na am na papa am na tante am na ay mbok am na ñoo am na xarit am na ñu ko mun a tëyee yow xam nga loolu mais ba nga ba kooku ñëwee di jël si Adji Sarr da nga ko ne du fi génn da nga ko dàq ni xaj ay avocat aji Sarr ñëw nañu nga dàq leen ni ay nit ñoo nit ñu ñëw pour jël si Adji da leen ni xaj pour lan xanaa du dimbale kese yow Adji Sarr du wax la demal ma dem man ma jéem a débrouillé nga ne du ci daal donc kan mooy dundee Adji Sarr man tu as envoyé l'audio là pour faire croire aux Sénégalais que man am naa lu may am man ci Adji Sarr te nga xam ne lekkuma dara ci Adji Sarr aw ma xaalisu Adji Sarr sama loxo man man je suis une femme politique d'abord xëccoowuma nekk activiste te ba may dem man samay activité Genève c'était dans le cadre de mon ONG jënd sama billet man ak waa CODAS ñun ñoo organisé wu pour ñu def beneen bi ma dem États-Unis damaa jënd sama billet dem won xeexal président parce que xamoon naa ne di ngeen nit ñi dinañ fa ñëw dinañ soxla ma won leen la réalité des faits contrairement à ce que vous avez essayé de vendre aux Sénégalais il y avait des Sénégalais de partout qui sont venus saluer leur président attendre leur président même sous la pluie dafa doon taw ñu toog muñ taw bi tom bi passé président mu ngi fa ñëw ay dix heures ñu toog di ko xaar léegi yow ngay fuité parce que événement yooyu wone naa li président liggéey liggéey bi rafet na yow nga ni loolu da koy yàq ci semaine bi génne loo xam ne da ngay wax nit ñi Françoise day dundee Adji Sarr man lu may fu may dundee aji Sarr dëgg ma Adji dafa jaar sama xaalis loxo Adji Sarr bu nit doon dundee ci moom moom du moom mooy si njëkk dund mooy am looy lu muy dundee Adji Sarr fan lan la fan lan la am bay mën a jox nit lu nit di dundee walantaani yu rate seen addina yi defe nit mën na am dara ci Adji Sarr di so kii Ousmane Tounkara moom moom ba mu gisee sama kër gi ba léegi la dof Ousmane Sonko du ma yow damaa liggéey dama doon liggéey ba quatre heures du matin y a des dama doon liggéey ba presque bët set dajale sama xaalis sama jëkkër jox ma xaalis ñu yeggali sama kër ma luwe ko xamuma Mamour Diallo musuma joxanteeg moom loxo musuma yónnee cinq francs bu fekkee ne Mamour Diallo mus na ma jox un centime yàlla bu ma tekki yàlla bu ma amati lu xolal lu se ma xolal kon yàlla bu ma fanaan tey Mamou Diallo laa wax yàlla bu dee jox na ma un franc yàlla bu ma fanaan tey un ministre de la république bu fekkee ne mës na ma woo woo rek laa wax pour ne ma Françoise sans euh, un franc baa ngi pour Adji Sarr yàlla bu ma fanaan tey ministre Macky Sall ministre gouvernement président Macky Sall ndax mës na woo ne un franc bi maa la ko jox wala benn directeur président buy jàppale président Macky Sall ne ma Françoise un franc baa ngi ko jàppale ci xeexu Adji Sarr yàlla bu ma fanaan tey yàlla naa dee tey man bu fekkee ni lekk na un franc wu DG wala ministre wala yan yan personnalité am wala maire bu Macky wala président ci boppam jox ma un franc ne ma lii man dama xamoon président dama ko gis dama ko mos a ma mosuma dégganteeg président ba ma demee nii New York la ma def les films honneur am ak man tête à tête te loolu par respect pour lui jëlu jéemu ma wut photo jéemu ma ci wut lenn lu may posté parce que xam naa sama bopp buñ ma attaqué dama loolu nit da nga koy tiitawoo te xam naa ne aussi bëgg naa sama bopp te ma jëlal ko mu nekkaat coow. te dama ko bëgg a épargner moom président parce que moom lay jaay man jaayuma sama bopp je vends le candidat Macky parce que il est un, le meilleur il est au-dessus de la mêlée il est le seul qui peut nous sortir de ce mauvais pas parce que on est dans un mauvais pas dañoo am ay dañoo am alal dëkk bi nit ñi nit ñi nit ñi fenkat yi wër euh, empoisonner les esprits il nous faut il nous faut être avec le président de la de la république jàppale ko mu yóbbu Sénégal fa ko war a yóbbu nekkuñu fi pour di jàppale ay ñoo xam ne dañoo xiif yàkkamti yegg si pour séddoo séddoo ay milliards duñ ko def Magita maa ngi lay jégalu Magita maa ngi lay jégalu bu baax a baax parce que apparemment euh, euh, on n'a pas bien communiqué dans le live bàjjen ay bàjjen Aïssatou maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax wa Njir Ndeye yëpp. di wax ni maa ngi jéggalu ko xam ne danga maa bëgg képp koo xam ne danga bokk si ñun Fatou Sarr Mame Babacar Fabi Rama Sarr démb wax na yow yéen ñëpp maa ngi leen di baal maa ngi leen di te di leen baal ak di leen baalu ak mais il fallait non astafurlah dégg naa parce que ki ki tudd Doro Gueye mës jox un million mu nga Sénégal ba léegi un million neuf cent Californie moom ci Californie la jaar doogee defe naa ne du PDG wu Macky Sall moom def naa businessman la donc damay wax ñi bokk ci état moom def naa bokk ci état ok voilà donc c'est c'est clair man samay communication na fa leer madame Marème Faye Sall musuma wax ak moom musuma euh, ko gis man koy door a gis keroog New York dañoo taxaw nii fekk mu yegg si man rek xam nga rek man ma ñëw di ko kii man j'étais impressionnée par le fait qu'elle était de grande taille xam nga booy gis ni ci télé doo xam nu mu toll mais man ba ma ko gisee mu njool mel ni mannequin ça m'a impressionné ma ne ko mais madame vous ndeke nii nga joole bu voyez comme c'est bête comme tout comme ba may wax ak président Macky Sall ak li may rëy làmmiñ ba tey waxuma man la ma ko war a wax yëpp sax mënuma ko ko wax xaw ma lan moo dafa mel ni sama cerveau bi ba ma taxawee président Macky Sall dañoo ma defal black out ma mel ni ab xale <laughs> non dafa am lu nekk ci président dafa am lu nekk ci président man maa man Françoise ak sama làmmiñ bu rëy ak sama xel bu yaatu maa taxaw ak président xamatuma lu ma koy wax j'étais impressionnée par l'homme non mais gis ngeen président Macky dina lakk ñu bari <laughs> président Macky Sall dina lakk ñu bari man gay xam nga lan laa réccu li ma ko yéex xam li ma ñibbi Sénégal parce que ñibbi Sénégal ba ma amee kayit nekk dans de bonnes conditions ci laa dem Sénégal ci laa gis li liggéey loolu rek lay rëccu lu tax yàlla yéex ma ko defal batax tax ba ma ci ay série ba ma doon ànd ak ay fenkat parce que amul lenn lu parfait yàlla sakul lu parfait ci àddina Doro Gueye c'est un ami c'est quelqu'un qui aime le président man li ma defal ay ñuy xeexal président ëpp un million neuf cent man damay joxe ba ñu bloqué ma damay joxe ba ñu bloqué ma Western monogram bloqué ma dañ ma bloqué woon wave après samay xarit ne ma da ngay da ngay def defal wave léegi ba ma defee wave ma def wave nag wave itam daf ma bloqué au bout de six mois mu ngi nii li ma may man ay nit ñuy jàppale président ëpp na un million neuf cent mët na ay peut-être quinze millions à vingt millions ba xeex bi commencé ba léegi président Macky sal ay nitam ak xeexam li ma jaral li ma ci investir mët na bon on pour que ma bañ sax am kii damay ne mët na au moins dix millions mët na au moins dix millions donc ku koo xam ne sur le terrain la nekk ëpp ma xaalis foofu mën na def ci président Macky Sall sax cent millions vous avez compris man ay nit dañoo def ci man ma dem defi conférence Sénégal te pourtant ñooñu man duma tus gëm li may liggéey gëm li may xeex alors kon man su ma defee ci xeex boo xam ni Sénégal la d'abord parce que c'est le soldat Macky Sall qu'on soutient c'est le soldat Macky Sall le soldat du Sénégal qu'on te damay lancer mouvement sax il faut sauver le soldat Macky Sall ku gëm na ñëw ànd ñu xeexal président Macky Sall sauvons soutenons le soldat Macky parce que le président Macky Sall est un soldat du Sénégal c'est un soldat du Sénégal c'est un soldat qui ne dort pas qui est au pas de course pour son pays ñëpp war a ànd ak moom xeex seen xol di dagg yéen waa kër Sonko da ngeen su ma jàppale woon Sonko tey kenn waxatu ko looloo nakari man camp bu ma nekk may ko yokk ko doole <laughs> te loolu leer na leen su ma nekkoon xam nga seen yu métti yëpp li ma nekkatul ak yen un million neuf cent dafa dul sax xaalis mais baadoole yi boo waxee un million neuf cent fi mu neen ci loolu la ñuy wax loolu doogu gay moo ma ko jàppale te te moo ko def moo ma ko moo moo ma ko jox xaw ma nu mu demee sama gars yi damaa sonn ci wax bi lépp daal mu ci loxo Gabriel comme danga may tendance man danga may tegal ndigg sërxal enregistré Californie muy wax lu bon ci man nga dem jox ko say nit pour yàq ma yeneen preuve yaa ngi fii génnewuma benn preuve tey génnewuma benn preuve preuve yoo xam ne bu génnee képp kuy féministe day na xaxandiku tufli sa kaw képp kuy féministe la wax mouvement féministe bu nekk Sénégal dinañ la xolal dina ñoom seen bopp ñooy jóg def plainte contre yow parce que y a de quoi y matière à cela moo taxit président Macky Sall benn la ci réew mi ci mim réew benn la fi la ci Afrique boo leen jëlee ma koy waxaat encore ngeen boo leen jëlee Kagame def ko modèle def ko icône ba président Macky Sall ñëw duma Kagame sur le terrain dàq ko liggéey ëpp ko résultat ba Kagame ñëw di ko laaj ay conseil di jël di bëgg a toppandoo stade bi mu tabaxal sénégalais ngeen am sax grandeur wax ko mais mais vous êtes malhonnête doo leen ko mës a nangul <laughs> doo leen ko mës nangul moom son mérite mais président Macky Sall tey moom dafa dépassé Kagame donc bu jarul ngeen di li ngeen di wone gis naa kuy wone euh, Rwanda wone leen Sénégal parce que ñag yi léegi ay Nigérian ay Ivoirien léegi Sénégal la ñuy tiitaroo Sénégal la ñuy dem di ko filmer di ko dugal ci YouTube bi pour won àddina si que Afrique am na président yu baax am na dëkk yoo xam ne defar nañ leen ba ñu mel ni Amérique bañ nañ ko ba Amérique gu Afrique la ñuy wooye Sénégal léegi l'Amérique de de de l'Afrique la ñuy wooye Sénégal et loolu c'est grâce au président Macky Sall like or not like ngeen bëgg ko ñàkk ko bëgg looloo am te loolu dinañ ko won Sénégalais yi war naa continuer won ko àddina si man un million neuf neuf cent ma fekk fa la may bàyyi ndax maa ngi nekk ci kër guy buy jaar huit cent mille dollars donc euh, te yow kër Sénégal boo xam ne minimum war na jar trois cent millions ok donc man ay seen un million seen i weccit yooyu ngeen di lijjanti man safuma mais Ousmane Sonko à la kuli ali Ousmane Sonko dina dem wuyu devant le juge bu amoon jom mu def ni Kalifone Sall su amoon jom Ousmane Sonko bu amoon jom kon dem na wuyu ji comme ni ko Khalifa defe defee waaye du dëkk ci obstruction à la justice obstruction à la justice depuis un an et quelque ñàkk jom dans ce pays là bu fekkoon ni Ousmane Sonko dafa di gow kon dootul génn di wax parce que moo fi def lu ne weng def loo xam ni kenn mësu ko def Sénégal ñu jiñ la yow kese ci biir réew ñu jiñ la yàkkataan képp kuñ ko jiñ yaa ngi tëdd presso si taw nduur a ngi ci kaso bi doomu Cheikh Yérim Seck tëdd na kalifon dem na wuyu ji yow nga toog nga ni yow fuñ la nee kaay wuyu nga daal di woo les archanges ange les anges les archanges les démons Lucifer Belzébuth yëpp nga convoqué leen ne leen kaay leen kaay may bëgg a sànq kaay leen ñàkk jom bilaay yaa ñàkk jom lu day ni Ziguinchor nga nekk maire Ziguinchor Ziguinchor di capital douleur boobu nga xam ni Sénégal da koo dund muy le bateau le day ni jour bi anniversaire bi yow nga dem di def politique maanaam nga nekk ci sa bopp muy loo xam ne gars yi xamuñu ko woon ci yow mais man man dama la yàgg xam yow nga nekk ci sa bopp pendant que des milliers de familles sénégalaises étaient en train de rap se rappeler la perte d'un être chair dans ce naufrage qui est le plus grand naufrage de l'histoire mu Ziguinchor nekk au cœur de ce naufrage yow nga nekk le maire de Ziguinchor pour la première année de ton magistère doo sax dem def un un événement symbolique def une stèle boo xam ne comme da ngaa bëgg di mettre sa loxo dans le au cœur de paysage de Ziguinchor nga ni damay defar bii monument tey pour wane ni doomu Ziguinchor doomu Ziguinchor moo nekk meeru Ziguinchor et première fois première fois euh, commémoration bi fekk man ma nekk maire du Ziguinchor damay marqué de mon empreinte damay marqué de mon empreinte la ville de Ziguinchor et les populations de Ziguinchor et les familles tragédie qu'a été le, euh, le, Jola, le naufrage du bateau Jola. Mais non, non, non, Sonko, comme à son, à son accoutumé, et allez s'occuper de Ousmane Sonko. Allez s'occuper de lui-même, il est parti. Allez raconter des balivernes, raconter encore des conneries. Badem attaquer l'icône. Binga Khamni Moy, Youssou Madjigendour. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il, a, il très haut le drapeau du Sénégal. Mon bon tapé doit gis viol chimom. boo tapee Youssou Ndour doo gis ni dafa yëkkataan comme Ousmane Sonko te yow à vie fu ñu tapee sa tur gis ne yëkkataan da ngaa yëkkataan ab xale dañ la ko jiiñ en tout cas. le jour de la commémoration commémoration du de ce de ce de cette douleur yow yaa ngi taloon toog di wax ay waxu kasaw kasaw di politique fàtte population bateau le Joola population Ziguinchor yi nga xam ne ñoo ngi doon jooy encore les morts leur fils perdu, leur fils disparu dans les ventres de l'océan. Yo, Ousmane Sonko, c'est pas une minute, même si conférence, mais tu pouvais faire une minute de silence, Ousmane Sonko. Mounon nga def une minute de silence. Ci conférence bobu Ousmane Sonko, mounon nga wax ni nañu taxaw def une minute de silence à la mémoire des disparus du bateau le Diola, mais defoko. Jaraluñu lako parce que yo tu n'en as que pour toi-même. yow Ousmane Sonko jaralu la jour boobu nga bañ a génn Casamance bañ a génn Ziguinchor ànd ak waa Ziguinchor jooy ñooñu defoo ko kon Ousmane Sonko yow boo waxee ni faale nga waa Ziguinchor xam nga ni da nga leen di nax boo waxee ni faale nga sénégalais xam nga da nga leen di nax yow saa yo jëfee sa jëf ak sa wax dafa dafa dafa wu dañoo juuyatloo tu prêches mais tu n'agis pas la ngay jëf bokkul ak la ngay wax mais yow yàlla nga lay Adji Sarr grâce à Adji Sarr et merci à Adji Sarr bés bu ne yàlla won la sénégalais yi waaye ña nga xam ne dañoo naa fekk bu leen neexee ñu continuer def semblant def semblant que xamuñu li xew Youssou Ndour ak moom gàcci ngaalaama ñu suñu royukaay nga te xale sénégalais xam leen ni ku doon toog di wax ni live TV yàlla bëgg naa am satellite ba ñëw liggéey ñafeel sa bopp ba am satellite kooku mooy seen model kooku ngeen war a wax Youssou Ndour mu sell te yàlla won na leen ko ba ngeen génne di ko tuumaal ci ay mbiru mœurs deux jours après deux jours après lañu ñu jàpp Ousmane Sonko ci mbiru yëkkataan mu yëkkataan ab njërim ab néew di doole la yëkkataan xale bi dem porter ko plainte ba tey ba sànq muy wér wéri wéri lu ne mu dugg ci lu ne mu fen ko fu ne mu sukk sukk fa di ñaan pour que procès bañ a am waaye tôt ou tard di nga taxaw tu vas faire face à tes responsabilités tu vas porter tes couilles Ousmane Sonko il va falloir que tu portes tes couilles et que tu ailles répondre devant la justice ne serait que pour ton honneur ne serait-ce que pour l'honneur de ta xoolal de de xale yi nga jiw sa doom yooyu nga jiw war nga setal sa der ne serait-ce que par respect pour ñoom man tey dama gën a setal sama der pour par respect samay doom ak ñi ànd ak man waa CODAS ak ceux qui m'aiment Ousmane Sonko va porte tes couilles et mets-toi devant le procureur sans demander à qui que ce soit de descendre dans la rue doonal góor Californie mi sax won na la yow quelle est la voie à suivre te du leader politique simple citoyen la yaa ñàkk jom Sonko porte tes couilles et va affronter la justice sénégalaise va répondre de tes responsabilités may tëjee ci soxna Mimi live keroog dama ko def j'étais trop passionnel et lool moo tax ma génn ma dindi live bi après Facebook tëyewoon na ko mais après man maa ko effacé ba mu ba mu ñëwaatee dama ko effacé dama ne ah, da ngeen di saaga Ousmane Sonko porte tes couilles et va répondre au procureur maa wax loolu man Françoise yéen xamu leen man amul lu may tiit yéen loolu xamagu leen ko xamagu leen ni tam saaga man je m'en fous ça me coule dessus léegi madame Aminata Touré je vous respecte et je me suis battue pour vous lors des dernières élections yéene woon naa la nga nekk président de l'Assemblée nationale mais président mooy président mooy entraîneur moo xam ban système jeu la teg yan élément la soxla à tel moment du jeu yenn saa ñu teg nit ci banc de touche te pourtant après bu ñu ko dugalee mooy def la différence dans le match ku la wax ne il n'avait pas un autre projet pour vous yow ni nga réagiré yow dafa mel ni yow yow poste moo la boole président de la république yow aminat Touré ñoom su genre yi François man Françoise Hélène Gaye mais dama jënd sama billet d'avion dem ñibbi Sénégal jënd oto jël appartement lu meublé ko frigo chambre à coucher lépp pour toog Sénégal xeex pour que le régime la tombe de de président euh, Abdoulaye Wade nekk ci réseaux sociaux yi boobu fekk mbaam yi ñëwaguñu la l'armada des insulteurs la fekk ñëwaguñu boo fekk boom xam-xam yi ñooy wax ma ma créé nekk ci page yu tudd créé page bu tudd réhabilitons notre Sénégal nekk ci 24 heures sur 24 di conscientiser la diaspora di mobiliser la diaspora ba alternance am président Macky Sall falu te man ba tey président man musuma woon dem laaj audience wala laaj ko wala laaj ko pourtant ñi ma doon nekkal dans les réseaux Abdou Latif Coulibaly Souleymane Jules Diop euh, Benoît Sambou euh, Néné Aminata man ñoo ñëpp nekk nañu ministre 2012 ci at at yooyu et pourtant je n'ai pas été dans le bureau de kenn si ñoom Aliou Ndoye ak kan seeti naa ko boo fekk mu maire rek la nekk moom on avait de bons rapports mais ba ñu nekkee ñoom ministre ni kenn si ñoom gisul sama benn demande d' audience wala ma ni ko ah war ngeen wax président ni maag yéen a àndoon a xeex war naa am dara wala lenn non mais pourtant Aminata Touré t'as pas plus de mérite que moi ci renversement boobu am ba tax faveur alternance boobu président Macky Sall ñëw nekk président de la République j'ai rencontré Daouda parce que j'étais avec Samuel mais ba tey demuma di wax ni ma poste yow président jël la def la ministre de la justice premier ministre conseil économique et social jël la def la tête de liste qui est un honneur chef campagne honneur la mais bu la bu toogee wax ni kii joueur bi kii moo gën a baax ci poste bi mais wóolu nga wóolu ko ne man je vous prête allégeance à vous excellence man yow laay jàppale nekkuma fi pour man je là pour vous servir monsieur le président foo ma teg ma liggéey la boo ma nee sax ñëwal toog sama bureau kuy ñëw nga ubbil ma bunt bi mu dugg kuy dem ma tëjal ko bunt bi ma ñëw defal la ko loolu mooy quand tu es un vrai partisan man malgré mes diplômes fii laa wàcc di wax ak dof yi ba ñu defe ni jànguma ku ma wax ni dinaa mën naa génne sama sama sama sama kiiwu promotion maanaam euh, promotion lañ koy wax en allemand sama dip kiiwu doctorat dinaa ko posté sama professeur ànd naag moom Sénégal def ay conférence boobu fekk président Macky Sall nekkagul président c'était tawu Abdoulaye Wade c'est pour vous dire que yow Aminata Touré ñu ñiy nekk fi wa wàccee suñu bopp nii du ni dañoo jàpp ne amuñu compétence mënuñu nekk dara mais dañoo jàpp ne fii la ñu mën a dimbalee président de la république wala ka ñuy jàppale fii ci réseaux sociaux yi et c'est le moins valeureux et pourtant je sais que quand on évalue nos deux diplômes t'es pas plus diplômé assis ah tu doctorat quand même man soutenir uma sama doctorat donc Aminata Touré man j'ai pas pu comprendre la réaction et l'excès coow li laa mënut a bi bay ba ngay fipp ba ba ngay dem alors que a tellement c'est-à-dire dans l'État il a tellement de postes yoo xam ne des stations yoo des stations laa koy waxee pas poste j'aime pas le mot poste il a tellement de stations yoo xam ne mën nga fa defaree mën nga fa liggéeyal président de la République beaucoup de yoo xam ne mën nga fa liggéeyal président de la République liggéeyal fa ah Sénégal bu dee que yow da ngaa am en tête que de servir alors pourquoi ce scandale-là, pourquoi you are like fighting over just poste président de l'Assemblée nationale? What's wrong? with you? Something is wrong. Man, lolo ça me porte. Nous, on t'a soutenu. Et j'ai nous avons des amis en commun et j'ai fait le j'ai endossé le slogan. Femme soutient femme, nous, nous t'avons soutenu. Mais nous t'avons soutenu parce que tu soutenais le président de la République. Parce que nous, d'abord, c'est le président Macky Sall qu'on soutient. Pour moi, clair. Parce que beaucoup d'ambiguïté. te ñun bu ñuy soutenir président de la république ku taxaw ci kanamam nekk noonam ñun sant nga ngay nekk suñu noon te nag bu doon suñu sago nga xoolaat bu baax nga xoolaat bu baax sa taxawaay nga dellusiwaat fa nga xam ni fa nga foofu en fait parce que ñi lay jay waxuñu la ni que tu vas faire une longue traversée du désert maanaam dangaa mbokat ba yëg ci kaw ñu bëgg la wàcce waat nga delluwaat ci suuf maanaam ay waay yaawu jaal ak fi mu ne yaa ngi dem kaw ñoom yaaw yaawu jaal ma ni le troisième mandat est un prétexte ma ni yaa ngi nar dem nag di jàkkaarloo ak ñoom yaawu jaal te nag dina métti torop te luy tooy ci yow lay lay joge lu leer laa la wax donc balaa moo gën a ñaaw toogal waxtaan ak sa président de la république bi sa frère nga ànd ak moom liggéey mu il t'a donné tous les honneurs et même indus honneurs yi mu la jox yëpp elles sont honneurs yu indus des honneurs parce que jox na la ko en lésant d'autres personnes qui avaient ou autant de mérite que toi madame Aminata Touré dëgg rek dañuy waxante dëgg vous êtes une grande sœur mais dëgg laa lay wax keroog live bi ba ma gisee ni damaa xaw a tàng dama ko effacé par respect pour vous ak pour ceux qui sont avec nous ma ni xoolal dañu lay nax dinañu jay ganaar bu muy mbëkke dañuy jay ganaar bu muy mbëkke loolu moo nekk di la dal su ma la waxee ni ku la wax ni jàkkaarloog président Macky Sall dina la jig nax na la parce que bu dul dara yàlla Dieu est juste te yàlla du juum li tax mu def président Macky président ci moment bii pétrole génn ci réew mi gaz génn ci réew mi circonstance yëpp sur le plan international def une constellation boo xam ne dafa jëm à l'avantage du Sénégal Russie hégémonie bi mu amoon si gaz beeg di di di tëyee Europe ci loxoom di majloo européen Sénégal mën na am hégémonie boobu remplacer Russie tey ñun Sénégal bu ndaw bii c'est-à-dire la sur le plan géostratégique, le Sénégal a une clé majeure. Mais si vous pensez que vous pouvez obliger le président Macky Sall à ne pas faire le troisième mandat, s'il le désire, c'est que vous vous trompez lourdement parce qu'il a le droit pour lui. Et il a des exemples de par le monde très dignes. Vous mêlez Merkel, le peuple allemand qui a laissé Merkel faire cinq mandats parce que circonstances yi moo laajoon cet effort collectif dama ne président Macky Sall bàyyi Sénégal tey mooy non assistance en à peuple en danger à des citoyens sénégalais en danger parce que nous n'avons pas aujourd'hui une relève digne du nom maa ko wax et je l'assume nous amuñu relève taxawul relève bu ñëwul doo quitter le champ de guerre ma ni booy guerre régiment bi nekk en face des ennemis tant que relève bi comme ñi ko war a mën a relever ñëwuñu boobu ñu dem ne suñu heure jot na c'est c'est c'est comparable à la situation du président Macky Sall tey mënut a wax ni je vais en retraite alors que tey la ko Sénégal gën a soxla tey la Sénégal soxla gën a soxla you know qualité de caractère am ses qualités humaines sa personnalité et ce qu'il a fait Gabriel xoolal fii fi mu waxuma waxu Gabriel na répondre xaaral ah, ma bloqué la comme ça yàgg moom ngeen ànd répondre man bu bu répondre ma wàcceel ko alxati alxati nag ci lay doog a dugg ci xam lan mooy xeexu réseaux sociaux parce que moo ma ay at ma koy bàyyi dama ne guerre boo nekkee ci combat benn général du retirer troupe du retirer ses troupes alors que la situation n'est pas sous contrôle aujourd'hui la situation n'est pas sous contrôle et le président a en main cette situation et elle la il il maîtrise cette situation man amuma mentor mentor Sénégal mooy sama mentor Sénégal moo ma intéressé ma président Macky Sall moo fi nekk yàlla moom la samp seeni pexe du ko mënal tous parce que yàlla dina ko boole képp koo xam ne doomu Sénégal bu set wecc nga di nga topp ci gannaawam liggéeyal Sénégal loolu tax ma ànd ak moom saaga leen ba dugg xolal ba l'an deux mille quatre-vingt-dix amul dara lu may wàññi ma ni tey président de la république abandonné le peuple sénégalais sous le prétexte fallacieux que dafa waxoon ni du ma def troisième mandat c'est abandonner le peuple sénégalais ci dëgg ci ci lëndëm crise bu fees ak ay bukki bu fees ak ay bandi bu fees ak ay defkatu lu bon bu fees ak ay sàcc bu fees ak ay reykatu nit te loolu président Macky Sall du ko def du ko def il a l'obligation d'amener le Sénégal jusqu'à un moment boo xam ne transition pacifique mooy am ñu teg Sénégal ci loxo yu wóor loxo yu xarañ yaa ngi may dégg mu door a dem noppalu ko léegi nag association ànd xeexal Françoise na ngeen xam ni que du associa Françoise n'est pas euh, la situation li ma am man primauté bi ma am ci réseaux sociaux dama ko liggéey dama fi yàgg dix ans c'est pas six mois dix ans c'est pas un an munu leen fexe ba ngeen man nit mën ma suuxal ci réseaux sociaux waxtu bu ma bëggee jóg-jóg waxtu bu ma bëggee yëngal yëngal loolu xamu leen ko bu ma bëggee yëngal réseaux sociaux yi day yëngatu su ma bëggee une cause fës day fës su ma bëggee man su ma jëlee man cause na ngeen xool yan cause laay jël damay jël cause yoo xam ne kenn bëggu ko kenn gëmu ko ma def ci man sama xam-xam ak sama mën-mën ba ñëpp ñëw di ko xëccoo damay ñëw defar ko ba ñu koy buuxante cause aji saa ku leen waxoon ne nit ñi dinañu xëccoo aji saa di ngeen ko gëm ku leen waxoon ne dinañ toog ci àddina ba nit ay nit di xëccoo aji saa wala def aji saar léegi di tiitawoo ne xam naa aji saar wala di tiitawoo ne wax aji saar nee na ma wala di tiitawoo ne maa ngi wax ak aji saar ba may jël man la cause de kenn bëggul woon wax tudd Adji Sarr kenn mais loolu mooy wone dale ma wooyee xarañ gay <laughs> loo gis ku ci ne dafa am fu ko yàlla defal man dama xarañ ci réseaux sociaux ak ci communication digitale ku ma jaay nga dem ku ma nga yéeg ku ma bàyyi nga suux sama silence rek ci nit da suuxal ci réseaux sociaux masana ma taxaw di wax ci yow lu baax aji saa bu dee nit da koy jàppee commerce moom waroon na mën a am bokk mom xanaa dina yokk lu muy joxe lu dëgg sama gars yi c'était tout pour aujourd'hui maa ngi leen di jaajo jaajëfal def naa wax naa lépp Mimi Touré wax naa la li ma xalaat wax la ni que président Macky Sall defal na la honneur boo xam ne defalu ko sax ay membre famille yu ay mbokam defalu ko Aliou Sall te peut-être que li nga gën a jàngal Aliou Sall est-ce que bëri na defalu ko Mansour Faye menn defalu ko Adama fay defalu ko ay mbokkam moom yow léegi est-ce que yaa gën ay mbokkam ba mu lay jëlee def di directrice de campagne je pense que amul mbok bu bu la gën a jàng wala bu ku la ko gënoon a yelloo ba mu lay def ministre de la justice nga foog ni yaa yaa gënoon a jàng wala yaa gënoon a xale non moom moo am coofeel ci yow on le sent parce que li mu la def lépp il n'était pas obligé et Allah n'était pas obligé istantugo ok maa ngi leen di tàggoo di yóbbu sama doom mu jàngi ok wasalaam maa ngi xaar na comme maa ngi dégg ay ay gudóor di bind Gabriel na man lépp lu ma wax preuve laa ci am lépp lu ma wax damaa tëye preuve doog wax bu tontoo ma génne preuve yi jamono ñooy ñu leeral lépp lépp leer Adji Sarr sama doom la encore une fois waxaat ko sama doom la amuma lenn lu ma koy mere ndax xale la doom la doom yenn say mu tooñ yaayam doom yenn say mu jëw yaayam nee na Adji Sarr daal ne damaa soof damaa soof parce que dama koy lakkal bul def li bul dugg ci lii bul wax lii lii bu ci def bu ci taxaw ye parce que sama doom la doom laa ko jàppee maintenant c'est normal que yenn say doom yaay sonnal ko ba mu ne ko yow dangaa yaay mère bi dafa bëri wax non mère moom dafa bëri wax mais moom dafa war a bàyyi li mu nekkee nii xam ngeen sama gars na wax ni dama soof dama bëri wax dama bëri histoire dama bëri commandé lu mu wax baax na d'accord mère Hélène a ngi nii euh, Tunkara nga bàyyi di xool sama yaram bi dégg nga te nga xool sa yaramu jabar yaram bi dafa am borom dégg nga c'est pas pour toi Tunkara yaram bu fees yaram bu fees beeg leneen ak leneen yëpp c'est pas ton problème parce que du ma sa jabar man yokkuma ween yokkuma taat yokkuma dara te loolu ce n'est même pas ton problème yow Ousmane Tounkara yaa ñàkk jom sa jabar gi mooy ñàkk fayda man sama jëkkër bu doon wax waxu jigéen beneen jigéen bay tudd ay taatam ak ay xobalan dootu ko defati sama gars baby let's go maa ngi yóbbu sama doom école o oh, <laughs> xamatu ni bala bala muy feeñ open sa garage maa ngi leen di leen sant di jégalu ñëpp nag hmm? di jégalu you go you before you get in the camera xaaral ma génn tàggatoo ak maa ngi dem di leen gërëm di leen sant di leen ne euh, je suis désolée <laughs> je suis désolée baby come in the phone so you can hold the camera je suis désolée de tout ce qui s'est passé bu doon sama du demee nii mais nit ki bu dee da défendre ay doomu aadama close the garage bu dee da ngay défendre ay doomu aadama te mënoo défendre sa bopp yow hmm? mais kan yu xool sa caméra fam bi booy défendre doomu aadama te mënoo défendre sa bopp mooy ni da ngay tu fais tout sauf défendre tu fais tout sauf défendre tu fais semblant sa baay baay comme taatu neen lay def ñàngey ñaa géey sa baay bu defee taatu neen kay sama jëkkër mën a def taatu neen lu nekk ci taatu neen sa baay du daa def taatu neen ba jug yow ñaa géey moom noonu dinaa posté sa photo après <laughs> sa baay daa def taatu neen ba jug kay sama jëkkër il faut muy def taatu neen kon bon hey <laughs> you okay Oh. maa ngi leen di ziar di leen jaajëfal maa ngi xaar donc développement yi parce que lii moom combat bi moom je vais mener ça jusqu'au bout rien foutre parce que man ma défendre Adji Sarr di défendre président de la République mënuma ne défendre sama bopp je défends ma personne mon honneur mon honneur et ma ma dignité daf ma tooñ di ko piétiner pendant des pendant presque un an il est temps qu'on règle ça ok maa ngi jégalu ñëpp nag di jégalu waa CODAS di jégalu Adji Sarr ci boppam parce que xam naa ni lii gënalu ko mais wax naa ko ni lii yoonam nekku ci lii yoonam nekku ci lii sama sama sama xeex la mënuma ko xeexal moom di ko xeexal di xeexal président de la république te mënuma xeexal sama bopp amul sens je ne peux pas me battre pour les autres et ne pas me battre pour moi-même ok Sonko nag qu'il porte ses couilles et qu'il aille répondre à la justice sénégalaise. Madame Aminata Touré, vous n'avez pas plus de mérite que les autres. Vous n'avez pas plus de mérite que les autres. Adji Sarr soxlawuma ko récupérer dama bëgg état bi xam ne y une fille en détresse une victime qui est en train de souffrir et de vivre l'enfer quoi qu'on dise aidez-la à vivre correctement dignement jusqu'à ce que le procès se fasse après lu mu golo xam boote doomam God bless you Babacar Fall merci this mess is not my mess am just helping ok récupérer aji gab ban soxla ma di récupérer aji aji am na ay mbokk te defe naa ni ba problème bi amee mbokkam yi laa njëkk a woo man xëccoowuma xëccoowuma ko man gañewuma ci dara <laughs> wutuma ci dara gañewuma ci dara ok léegi nag comme Gabriel dafa yóbbante galgal léegi nag euh, je pense que wax naa am na lu ma wax am na leneen lu des pour aujourd'hui je m'en arrête là très bonne journée à tous Sonko porte tes couilles et va répondre à Adji Sarr merci